billahi mina sheytaani rajim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ngi leen di nuyu di leen ziyaare te problème mu technique moo ñu jàppoon <laughs> xam naa ni xaar ngeen ba xaddi mais problème technique moo ñu jàppoon ndax des fois bagage yu internet moom day xaw a doy waar loolu pour nga kii ko pour nga ndax ñu ngi nii di lijjanti Facebook bi affaire yi nag xawoon na kii <laughs> xawoon na yéeme tuuti may leen ñu tuuti ma defar caméra bi ci waa Facebook donc ñu ngi nekk en direct Facebook TikTok waa kay di leen wax ni nag euh, lumière bi léegi dafa mel ni baax na. di leen wax nag ngeen daal di partager live bi daal di abonné ñu xaar suñu gan daal si bu ko defee nag ñu mën a waxtaanee lépp li nga xam ne rek mooy expérience yi ñu partager ak suñu femme Firdawsi durant ces euh, quatre mois. kon waa Facebook nuyu nañ leen ziar nañ leen di wax ngeen partager live bu baax di nuyu aussi. Euh, di nuyu aussi waa TikTok waa di leen wax ngeen yegg si ak jàmm ah seen xew mi commencé na <laughs> borom xew maa ngi leen di woo kon nag eh, may leen ñu tuuti rek nit ñi connecté wu ñu mën a waxtaan li nga xamante ne rek tey mooy suñu expérience su femme Firdawsi Noble yooyu. waaw di leen wax ñu daal di yegsi ci jàmm vidéo yi ñu ngi leen di wax ci formation yi ñàkkul nag la euh, kumpa gi mu ngi fii jigéen ñi bëgg nañ ci bokk pour joyanti seen dund parce que ku ne xam euh, <laughs> ah, <laughs> yëpp pour lan pour mën a euh, joyanti dundu jigéen ñi parce que kenn naatablewul que ni jigéen ñi góor ñi àddina bi ñu bëri ñu ngi nekk en souffrance souffrance boobu nag ñu ngi koy seetlu ci néegu sëy yi ci vie professionnelle bi ci éducation des enfants suñu spiritualité kon dañuy wax ni nit en certain moment dans la vie euh, day am loo xamante ni da koy soxla lu ëpp tey par exemple marié naa am naa doom euh, maa ngi liggéey mais sama dund jusqu'à présent je sens que am na lu si manqué donc loolu si manqué nag la plupart des gens dañuy nekk di ko ci leneen ci ay distraction wala ci ay euh, perte de temps kon ñu ngi leen di wax ngeen connecté wu yéen ñëpp daal di si xaar ma réewul doo mën a wax. wa rahmatulah wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. maamu ñu ngi lay dalal di nuyu soxna Fatima. macha allah waaw ñu ngi kontaan bu baax soxna Fatima. di wax eh, baadi awdu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim di wax ni jour la boo xam ne xaar nañ ko lu yàgg eh, comme ni nga ko waxee ci af ci yi affiché ne quatre mhm. mois de formation la woon tey nag mhm. yàlla dogal tey lay soog ñu def suñu clôture di mhm. sant eh, soxna yi nekk se cinq ñi nekkoon cinq de ñëpp macha allah ci ci ni ñu àndee mais loolu yëpp ñuy wax ne c'est grâce à notre coach moo ñu jàppale euh, ci formation bi booster ñu euh, donc euh, dañuy wax tey ak beaucoup d'émotion ndax li ñuy wax naan bu doon suñu sago du mu gën a continuer mais incha allah yeneen yiy ñëw comme niñ ko programmé dafay am benn temps boo xam ne dañuy noppalu mais di sant yàlla bu baax a baax di si mm-hmm. yàlla bi ñu mayee ñun bokk nañ si bi ñuy wax naan doyen yi ñi nga xam ne mm-hmm. yàgg nañu di suivre formation yi depuis ci mm-hmm. tàmbale bi mais rëcc wuñ ko benn yoon ci côté yëpp ci côté yëpp parce que toujours dañuy jàng lu bees ci côté développement personnel boo xamante ni dañ ko segg ak diine mais li ñu gën a neex ci yow te fa soxna Fatima li ñu gën a neex ci suñu coach mooy mm-hmm. coach la boo xamante ne dafa léppam ci diine la ko teg euh, une femme boo xamante ne lépp lim ñuy jàngal ci diine la ko muy loo xamante ne nag lu néew la ci développement mm-hmm. personnel comme ni ko ñu bari xamee loolu moom moo si moo ñu gën a moo ñu gën a kii si formation bi marqué lool ndax tawxiid bi ci am yokkale sa sa sa diggante sa borom eh, ñu am daal macha allah bi ñu duggee ci formation bi duñu ay xale ay mag ay mag lañu am nañ plus de cinquante ans mais ñu gis ne suñu digganteeg suñu borom bi ñuy ñëw amoon nañ ko mais dafa gën mm-hmm. si suñu côté euh, couple macha allah si suñu côté ay njaboot macha allah suñu côté finance suñu côté nu ñuy gérer suñu ay bien ak yëpp macha allah éducation des enfants li ci biir néeg bi lépp daal muy formation bu matale ci côté yëpp donc soxna hmm. Fatima du ñu yàggal dañuy sant rek di wax jazakillah xayran suñu amul lu ko ëpp wax la ko mais vraiment tu es une femme de valeur macha hmm. allah li ñu jàngal mosu yàgg nañ si àddina mais li ñu jàng ci groupe bi buñ ko teeloon xam am na erreur yu bari duñ ko def mais di la sant bu baax a baax a baax di wax ne tey moom on parle avec beaucoup d'émotion di la wax jazakillah xayran waa 5D yëpp ñu ngi lay gërëm di la sant salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu. dégg nga Khadija Khadija stressé ëpp naa def Khadija stressé ëpp naa def bul stressé wu <laughs> zéro stress. ñu ngi lay ziyaare. Euh, en tout cas ñu ngi lay dalal ak jàmm la wax nga yegg léegi man nag tey wax ji moom dama koy bàyyi wa 5D dafa ñaari morceau yu ndaw rek yu ma la bëgg a wayal fii su ma paree damay wàcc toog déglu yaa ma gën a xam liñ fi wax ah Khadija nee daa am ñaari morceau yu ndaw yu ma a wayal kon boog yegg si leen waaw macha allah mm-hmm. Khadija na baat bi neex bi waaw kay tey dama naan naa leen su ma xëyee <laughs> ko tuuti ah, yéen fii du fii du 5D de <laughs> Khadija na baat bi neex rek soxna naka la sax ay sab si la numéro bi na amulay tur de <laughs> loolay coow li waaw ba tey kay nga dal sant yàlla a baax waaw sant yàlla bu baax euh, Fatima waaw formation bi nag moom sant naa ci baax parce que xam naa rek sama personnalité bi. Mhm. yàgg naa ko ci ba sonn mais rek moom <laughs> allah. macha allah comme yéen a ngi dégg rek baax na bu dee yéen a ngi dégg. Mhm. waaw tey moom rek moom gëstu naa baax xam man suñ am yëpp koy jéem a affronté ndax moom balaa yëpp daa nga ko bu bëri. macha allah. waaw moom macha allah gis naa ne moom ak sa spiritualité allah moom. sant ngi ñaan yàlla di la ñaan amin amin ñu <laughs> mais fekk la commencé na tax xam na ni baykat bi sama pesante ban genre nit laa doon. Mm-hmm. comportement am yëpp ma ko bëgg a apporté tamit. Mm-hmm. waaw sama. su naa la waaw li ko jëm éducation bi jot a jot parents yi. Mm-hmm. de telle sorte que ñoom ñu mën a nekk ci rapport yi ci xale te xam nga loolu dafa baaxul ci xale yi. dëgg la. te xale dafa bëgg amul ah, kii ah, sa bopp boo ko defee rek doo suul. Mm-hmm. te parlé na sama liggéeykaay bi tamit ndeysaan am naa jàmm bu bëri ak sama collègue yi. sant yàlla que nekk naa ci jàmm si moo doon bës rek ñeneen seen rek ñu jaajëfal tamit Cheikh Ibrahima Ba ak kuur yi mu sax ko joxe. macha bi waaw di ko gërëm di ko fàttali nga xamante ne dafa ni ñaari saison te dafa ñu dafa am ko. nga ñëwaat presque bi parce que formation bi moom formation rek mooy tax nga ne la mu am def naa formation a jàngaat rek te formation bu ren moom gis moom macha allah daal. xam naa ñu si gën a ñu ñëwaat tamit ñu ne dàkk bi tamit incha allah. incha allah. waaw dina naa baarakalaa si kër kontaan nañ trop si yow. amiin amiin ñu ngi sant yëpp mënuñ ko exprimé si ndax kontaan bi. amiin amiin. waaw parce que kontaan nañ trop si yow yàlla yokk kontaan si yow. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. waaw di kontaan bu baax a baax. ñu ngi delloo. donc xaar boobu ba léegi yegg si nañ si macha allah xam seen na trop trop trop. macha allah macha allah sama sama sama mama sama mama wax rek doy na sukkuru ñun mag ndax biñ la yàggee topp wax la ci ne ndax tubéy biñ la yàggee topp yàgg na. wax dëgg depuis man moom ku yóbboo ma deux mille dix sept deux mille dix neuf. Mhm. wallaay allah njëriñ rek ndax mag buy topp ko ah, loxoom daa allah. sant yàlla. Ah, allah waaw sant yàlla di la ñaanal yàlla lu bëri bëri. yàlla na la yàlla jàppale bu baax a baax parce que li a wax bëri na. amiin amiin yéen tamit euh, kenn la xamuñu woon duñ la jànguñu woon mais daal lu bëree surtout man de man fi may waxee rek mooy si wàllu éducation des enfants. Mm-hmm. ndax ñun de dañoo def ne yar moom a violence yar ak yuuxu yar ak xaste yar ak dóor. mais nag ñun yar ak euh, cofeel. ba tax na lu bëri loo xamante ne xawoon nañu rek ci suñu njaboot del si waat nañ ci lii yëpp yëpp ak yëf bu bees ci suñu njaboot mbëggeel ak rek boo xamante ne nii fekk nañ ko ak suñu njaboot dëgg la ndax dañoo la plupart na njaboot du baalu waajur waajur baax lu ko si njaboot dafa war a am doom Euh, ne yaay déedéet amul droit yaay waaw déedéet yaay bu waxee waaw waaw la déedéet la est-ce que affaire parce que yàlla moo bind doomu aadama dëgg la euh, ne doomu aadama bu ci nekk nii la war a mel dëgg la nekkati ñun suñu doom yi mel mais yàlla moo koy tànn ñu suñu doom yi mel mhm. ba fekk si ko si dimbali ko affaire yi sotti mhm. ba tax na daal li li nga jàngale bëri na bëri na surtout nag si surtout nag si personnalité yi <laughs> ak gëm-gëm bi nga xamante ne moom lañ gëm suñu bopp dana gëm suñu bopp xam ñooy kan waaw gën a xam ñooy kan loolu rek dafa nekk taw féex ci àddina. dëgg la. ba pare nga teg ko li ko faa mooy nga teg ko ci alxuraan ak sunna di jàngal mm-hmm. di ñu jàngal tawhid bu set wécc. ñu gën a jóg ko suñu borom. Mm-hmm. xam ne lépp lu ñëw rek ci borom bi la jóg. dëgg la wax dëgg yàlla dugg yi nga xamante nekkoon na suñu bopp. Mm-hmm. liñ baa ngi kii kon grâce à ñu dugg a wax bëri na bëri na dañ koy bàyyi suñu la yàlla fay yal na amin waaleykum salaam wa rahmatullah kontaan nañu di la jaajëfal jéej en tout cas mm, dugg bi am na solo waaw di wax ni comme ni nga ko waxee rek waaw euh, développement personnel moom daf fi nekk di corriger ak di rectifier yu bëri yi nga xamante ni tey jàppoon nañ ni euh, noonu la ñu war a doxalee suñu àddina mu ngi ci côté yar mu ngi ci côté liggéey mu ngi ci muy a doon waaw te comme koy faral di waxee rek maa ko dund ko naatable waaw te ça fait des années mu ngi ñuy suturaal ñu ngi euh, ñi ci li nga xamante ni tey mooy formation développement personnel waaw parce que jigéen ñi moom ku ci jaaxle rek yaa ngi daw uti coach xool naka ngay jooyante sa sëy ah, yaa ngi ut wàllu yaa ngi jéem a fu nekk yaa ngi fay dugg pour sa sëy neex waaw te fekk na des fois solution bi mi ngi jege lool waaye ñàkk koo xam ak bu ñàkk koo farataal euh, ak ñàkk xëy na mm, am ci yaakaar parce que des fois nit ñi dañuy gis ñi wax dafa bari ci internet bi mais gis distinguer kii wax pour wax ak kii wax ndax li muy wax liggéeyam la xam-xamam la waaw te loolu na dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax dañu war a bàyyi xel que ni nit ñi wax bëri nañu waaye ñun li ñuy def nii suñu liggéey di ci ànd ak ay soxna yoo xamante ni yu am fulla ak am personnalité xam li def bëgg lu ñuy def xam tamit li nga xamante ni moo leen indi waaw ci seen ci ci formation bi ñëwuñu pour taxawaa nit ñi kenn du leen woo ci ay naxe ndax bu ñu gisee ni boobu ba tey ñu ngi euh, def ay live ñu ngi euh, wax ci li nga xamante ni tey mooy développement personnel njëriñ bi ngi def ay vidéo ñu ngi def ay texte ñu ngi def ay cours pour lan pour mën a euh, soññu jigéen ñi pour aussi jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ak ñun ci formation bi ngeen def effort ngeen mën a ñëw joxe si li nga xamante ni tey mooy seen témoignage waaw parce que tey nit ki bu fekkente ni bokk nga ci formation bi ñëw joxe sa témoignage day nekk loo xamante ni tey lu am solo la waaw lu am solo la parce que yeneen jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk internet bi nga xam ni léegi kenn wóolatul dara parce que ku ci ne danga naan ah ñii moom dañoo bëri wax wala wax ji dafa bëri wala ku nekk nangam sangam da fekk ne comme ni ma koy faral di waxee rek ay magum jëmm kenn du leen woo ci yaama neex ba pare te doo leen jox wala doo leen wax lu ñu mën a dégg. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. kooku

def nañ ko depuis mois nekk macha allah formation boo xamante ne euh, man li ma ci gën a neex rek li may wax nag. macha allah formation. moom la wàññi que liggéey ci. day day li ma ci gën a neex a neex rek mooy. Mhm. Euh, diine la tegu. Mhm. ak tamit euh, ni ngi ñu wërsëgal li ñu gannaaw yàlla ni ñu wërsëgalee rek ñu suñu bët ñu xoolee beneen gisin boo xamante ne dañ koy a ci àdduna. Mhm. nga xamante ne xéewal boobu du ñëpp ñoo am. Mm-hmm. ndax développement personnel mën na am nga dàq ci mais mm-hmm. développement personnel bi tax ñun surtout ñun soxla vraiment mm-hmm. mën nañu ko amee fenn lu dul ki nga xamante ne euh, daf lay da ngeen da gis-gis da ngeen bokk ci ne lépp tegu rek ci alquran ak sunna ba tax na li ma ci gën a neex mooy dimbal nañu xam ñun suñu bopp baal suñu bopp ci lépp li nga xamante ne dafa jaxase suñu bopp. Mm-hmm. am amour en a ci suñu bopp jiital suñu bopp nag ci lépp. Mm-hmm. li nga xamante ne nag ci lu baax ak ci lu ni ñu koy parce que ñun problème bi am. Mm-hmm. ñun mooy dañoo jiital nit rek ci lépp nga dem ba nga xamante ne dangay gaañ sa bopp. ci bari yoo xamante ne yow xam. dëgg la mais nag bu la yàlla xéwale na nga def a personnel ba. am amul en soi. ba nangul sa bopp da ngay nangul ñëpp te sa nekkin ak ñeneen ñi day day ndax jàppale nga ñu ci suñu sëy surtout a boobu jàppale nga ñu ci suñu njaboot yi jàppale nga ñu ci coté lépp koo gis rek macha allah da ngay mën a nekk moom nu ko yàlla bindee rek da koy jéem a accepter jéem ko mm-hmm. comprendre sant yàlla surtout loolu jéem a comprendre bi doodoo nekk ken jéem a juge kenn mm-hmm. kenn ko jéem a juge kenn erreur lay doon nekk rek <laughs> si su mi mm-hmm. ba tax naa yàlla rek daal moo am sa fay coach yàlla na yàlla fay te sa liggéey bi yàlla na lawa lawa lawa law ba amiin amiin jigéen rek ndax lii bisu lawoon souffrir jigéen jeex dafa bari mm-hmm. loolu surtout loolu Mm-hmm. waaw ñu ci bari a ci na xëy na xamaguñ moo tax. waaye yàlla baax na te xam naa incha allah dina ñëw ndax lii buñ ci jotee rek. mooy mm-hmm. suñu trésor la ñun ñëpp benn jigéen dootu souffrir. wallaahi surtout kooku benn jigéen dootu souffrir day jeex de. Mm-hmm. day day jeex moo tax yàlla yàlla fay na daal vraiment liñ dund moom ah, ci mois yi moom. ah man de depuis mois kii mosuma ko dund. waaw sant yàlla xam nga sénégalais dañuy gis formation développement personnel coach yi nekk à l'extérieur di def ay formation man boo gisaguma sénégalais buy def formation en gis naa nag ay sénégalais def ay vidéo ay sénégalais yuy def xëy na ay euh, ay waxtaan ci développement personnel mais ñuy def formation pour former la pour jox la possibilité nga changer waat sa dund jox la possibilité aussi nga am no mel ci sa àddina loolu dafa jafe waaw donc du euh, li nga xamante ni tey mooy formation 5D def te bu ma def ko par hasard waaw te yow yaa ngi woon daaw ci formation bi yaa ngi ci woon ren te yaakaar naa ne daaw bu la neexul woon ren doo fayaat sa xaalis di ko sànni ci fenêtre <laughs> ay magum jëmm moom neex mooy Fatima mhm. ko nekk ci seen tali ndax jigéen ñi forox

wilaay ndeysaan mais nag incha allah dara yàggu tam. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu ngi lay jaajëfal. amiin amiin waay yaakum donc soxna yi ñu leen di jaajëfal di leen wax ngeen yegg si waa gis ngeen lii ci musóor musóor gi musóor 5 deera dama leen di jax sagal rek dinaa ne yéen a ma yónnee seen ay yére yónnee ma seen teraanga ne ma kot ci sañseel waa léegi sañsee naa sañsee baa ngi léegi nag Eh, comme li may wax rek yéen waa 5D da nga fi nekkoon wax la nga yegg si eh, yegg ku xaamul xaamul te la yuuxu dundu gi daa saamul nof lay amul ku xaamul déglu salaamaaleykum maa ngi xaar de. Ah. seytaane bàyyiwul njaayam gi lambagul pas-pas yi baaraxul ah, ku xamul xamul te la yuuxu waarul dundu gi li may bëgg a way Fatima laa ko wayal ah. ee eh, suñu soppe bi Fatima yawa yawa ki may bëgg a way Fatima laa koy wayal suñu soppe bi Fatima yawa yawa waa ah. 5D ne leen ko yawa yawa ah. e suñu soppe bi Fatima yawa yawa sabax moo ñu di la way nañ ko jéem cinq de ngi ni a way suñuy riim e suñu soppe bi Fatima yawa yawa kon yawa yawa a yawa yawa kon yawa yawa Fatima yawa yawa jazakallahu xayran deful dara du ko dégg jazakallahu xayran Fatima merci beaucoup on t'aime beaucoup on t'aime en on t'aime beaucoup sànq de yéen la yéen la macha allah. ku ci leen ko tàccu leen Khadija. man ko kontaan nañ macha allah. <laughs> tey moom damay bàyyi élément yi wax. waaw damay bàyyi élément yi wax tey. waaw macha allah waaw noonu tey da waaw ah. ba si kanam dama leen di bàyyi ñu wax nga jël loolu. après nañ tëj ci kanam. waaw d' accord kon ñu daal <laughs> dalal kan maam Penda wala kan moo bëgg yëpp maam Penda waaw. am na ku ma doon. man mi wanteer boutique maam Penda. <laughs> kon yegg si kon yegg si asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. kon si ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay delloo ziar di la fay. di di nuyu say flowers yëpp waaye di beral nuyoo waa cinq d macha allah. di wax ne alhamdulilah comme yegg si nañu ci xew mi ak jàmm vraiment. mu nekk mu nekk lu ñu doon xaar mais. mu nekk lu ñu doon xaar waaye yow wër na la ne bëgguñu woon mu jeex. <laughs> élèves yi jàng te bëgguñu école tëj lañu. ah waaw loolu da day yéeme. waaw moo tax nag waaw kontaan nañu kontaan nañu parce que bëgguñu woon école daal ñun daal sunu école bëgguñu mu tëj daal. <laughs> warul tëj. <laughs> déedéet a tëj. ah doy na waar <laughs> ah, mu ngi noonu mu ngi noonu de kon nga xam ne mbir mi mbir mi neex na waaye kon nga xam ne mbir mi am na solo. Mhm. ndax comme niñ koy waxee ñun ñëpp ay ay ay magum jëmm lañu. foog naa tey rek ku ñuy wax mama ñaaña mu ngi koy témoigner. Mhm. Euh, boo demee tey ci formation bi di nga fa fekk ñu ëpp maa ngi dégg léegi mama Oumou di ko wax euh, tranche d'âge yëpp ñu ngi fa. Mhm. parce que jàng ak wut xam-xam ak wut li nga xam ne mooy santé mentale moom la kenn warul jombale boppam mhm. kenn kuy dundu rek di agir ak adduna ak société bi ak doomu aadama yi soxla nga loolu tey ci sa dund nga xam ko nga bañ ko xam parfois mhm. nag ignorance mun nañu sonal ba ñu jàpp ne ñun on n'a pas besoin de l'autre pour vivre wala tey li ñu jot xam ci sunu addina ba yegg si fii jàng nañu dem nañ soit dem nañ école coranique soit dem nañ école française wala dem nañ jàng selon dëkk bi ñu nekk wala culture yi ñu am te mhm. loolu doy nañu suñu dund pour que ñu mun a ñu mun a ñu mun dem te loolu nag ignorance dëgg dëgg dëgg la. gënu koo mag nañu xam ni daal. Euh, déedéet ignorance la gënu koo mag parce que ñun ñii ñëpp loolu la ñu yaakaaroon mais bi ñu ñëwee tey di découvrir développement personnel ak yow. Mhm. Euh, te it li tax ñu ne ak yow mooy euh, sénégalaise nga. nekk femme musulmane au vrai sens du mhm. terme. loolu tam mu nekk li nga xam ne tey moom ngay doxee moom ngay waxee ci métier bi nga xam ne moom ngay def muy coaching. Mm-hmm. lépp rek nga lalee ko ak sa diine ñun vraiment ñu am ci fierté def ci nangul nangul la ko nag parce que dañ cee gis suñu bopp en tant que julit mais dañ cee gis suñu bopp en tant que li ñuy wax dem nañ ba ci biir nuuru gis ni vraiment jox nañu jàmmi xool jox ñu jàmmi xel waaye aussi may nañu aussi ñu dund ak suñu ay famille dund bu normal bu xam ne tey xëy na fooguñ foogoon nañ ne dund lépp luy dund ak mbégte am nañ ko ci suñu dund mais ndekete manqué woon na lu bari ñu ñëw aussi ci xale yi yarum xale yi gis nañ ni tey ñu ngi doon yar mais ni ñu doon yaree du noonu parce que dañu jàppoon ne rek ñun li ñu am mooy le meilleur kon li ñuy jox xale yi tey ñun tam li ñu am la alors que amoon na lu ci des lu baree bari li nga xam ne tey bi ñu ñëwee cinq des découvrir nañ ko ak yow. Mmh. lépp lépp mënuñ ko wax ñu dem côté ci sexualité ñu dem ci éducation des enfants ñu dem ci côté euh, sax lan lay ñuy waxati côté business sax ci boppam loolu tam dañ koy fàtte. mais muy muy volet bu am solo mmh. aussi ci formation muy côté finance. Mmh. côté naka ngay def pour gën a màggal sa business naka ngay def pour ah, li ma bëgg li ma bëgg <laughs> financièrement nga xam dan nga war a toogee ah lan mooy ci yow nga am ay objectif aussi par rapport ak sa fan nga war a tàmbalee mm-hmm. lan moo ciy farata càmbaraat sa bopp càmbaraat sa business bu dee da nga doon yox yoxi mm-hmm. bu dee aussi da nga nekk di procrastiner nga am motivation bu lay permettre tey nga mun a agir nga xam ni mm-hmm. yow tey jii amul dara la war a téye que am nga objectif am nga loo bëgg tey koo gis mu ngi toog ak ay projet mais ñemewul pour pour engagé wu parce que lan parce que par manque de moyen pour engagé wu soit mu nekk financièrement mënul nekk soit mu ngi procrastiné wu mhm. parce que mu ngi ragal résultat ban la war a am soit mu ngi xool bu amee bu réussirul wala bu nangamul ban regard la société bi di war a am ak moom tax tey ku xam cinq d jaar fa nekk élément cinq des xam nga ne regard société yow keeroo ko nekkul sa problème parce que dem nga ba xam sa bopp dem nga ba xam ni ah mhm. man sama dund sama dund la dund keneen mhm. dund keneen la Mm-hmm. ndimbal boobu rek nag ku ko yàlla defal yow da ngay tey da ngay yëg importance bi nga am yow ci sa bopp. surtout. parce que nit yàlla daf la créé exactement ci kaw ci kaw suuf mais rawatina nag julit bi nga xam ne tey moom mission ci àddina daf ko wara a yëg. sens bi mu mm-hmm. am tey. ci ci ci njabootam mission bi mu am ci njabootam mission bi mu am ci borom këram mission bi mu am ci société bi. mais mission bi mu am ak boppam moom te suba boromam dina ko ko laaj. vraiment coach li ci formation bi yëpp mënuñ ko kii gis naa gars yi xam nga man dañ ma yëpp tam tam may buux ma génn ak gis nga ñu lay sànni ay ay doj sànni ñu lay xeet ay doj mais bu leen faale <laughs> ku bëgg leen faale buuxante dugg <laughs> waaw mais vraiment importance formation bi yëpp mm-hmm. mënuñu koo wax moo tax ñu ngi invité mm-hmm. mbokk soxna yi di invité jeune fille yi di invité ñëpp ñu leen di wax ne ñu ñëw rejoindre cinq d coach Fatima Zahra parce que njëriñ kese kese lay doon waxuma moom coach mais ñun ñi nga xam tey fréquenté nañ formation bi rek wallahi bu ñu mhm. sañoon dañuy taxaw ci mbedd mi di yuuxu di ñëw di di yuuxu nit yi di leen xëcc ah di leen gis naa ci gis naa ci seen yéene ñu ñëw mhm. waaw rien que oui que pour ñu ñëw participer ci ci ci kii bi aywa rien que ñu ñëw participer tey ci formation bi mais nag li mhm. olof yi di wax daanu dajul suuf mais comme nag euh, tey 5D euh, gis nañ ne bés bu set yëf yi day gën a màgg macha allah te yàlla na jëm kanam. ah waaw parce que lu baax moom tànku amul tànku ginnaaw tànku kanam rek la am. Mhm. te ñun ñii mhm. jaar ci yow gis ne ni ñuy ni ñuy jéemee di def le maximum pour képp ku ñu xam wala ñu am ne nekk parce que. bu ñu jàpp ne ko diri la ne dugal par force nee leen bàyyi yi rek bàyyi leen leen ba ñu décidé ngeen ne waaye coach kii am kii que coach dafa am ñoo xam ne comprendre ñu am na ñoo xam dañ leen di dimbali loxo ñëw teg leen loolu mënta ñàkk loolu mais nit bi bu ñëwee li am solo mooy moom day mujj di la remercier di mujj di la wax naan dama lay ñaanal di mujj di la wax naan man lay defal ay hmm. naan waaw moom na kii rek pourcentage moom dafa war a bëri xam nga loolu yëpp nag yow sax mbaax rek ci lañ ko jëlee ñun sa générosité daf ñuy motiver ñu nit dañuy bëgg a def <laughs> duplication comme ni muy ni muy amee ci ci ci ci yow. sant yàlla vraiment lii daal yàlla na ko suñ borom màggal màggal ba àdduna yëpp découvrir la. mais surtout ñun ñun femmes sénégalaises yi. soxla nañ ko bu kenn toog jàpp na yow nekkoo ci besoin bi. am nga problème amuloo problème jàppal ne soxla nga ko. te li tax mhm. mooy sa spri sa daf koy defar aussi. surtout sa dund. laal sa sa sa spiritualité daf koy defar defar goo xam ne tey yow mënuloo ko woon mm-hmm. xool parce que dama naan ñun ay nit kese lañu. Mm-hmm. ay nit kese lañu dañu am suñu gëm-gëm muy yéeg ñuy am suñu gëm-gëm muy wàcc ñu dund diine ci loo xam ne tey am na luñ ci xam am na luñ ci ignoré am na mm-hmm. loo xam ne tey yaakaaroon ne nii ñu koy defee nii la alors que du noonu loolu yëpp aussi formation boo ñëwee da nga gis volet diine bi aussi macha allah dafa am solo trop trop trop mm, trop dimension yu kawe bëri bëri bëri waaw yu kawe yu kawe yoo xam ne vraiment daal lépp kenn mënu koo wax mais ñu ngi invité ñëpp a ce que ñu ñëw découvrir formation cinq dimension bi nga xam ne njëriñ lay doon ci ñoom ci seen àdduna waaye ci seen ëllëg incha allah en tout cas ñu ngi lay remercier coach di la wax jazakillahu xayran o na la yàlla fay yiw di di remercier aussi sa équipe yëpp waaw sa équipe yëpp Awa Diallo ah ñoom ñilaan ñoom Fatima Diouf ñoom Oustaz Ibrahim ñoom euh, maman Oumou ñoom El Capo Diedia vraiment ñoom ñëpp chapeau à eux yow daal tabaarikàlla macha allah yal na yàlla yàggal ànd bi saxal ko ñun moom ñu ngi toog di xaaraat beneen formation incha allah. <laughs> macha allah en tout cas kontaan nañu ñu ngi ñu ngi. kontaan bu baax a baax kontaan nañu. di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ñaan nag topp minute benn minute wala ñaari minute. ñu daal di fàttaliku daal di ñaanal suñu tata ñi mu nekk ci ñoom mag ñi nekk ci ñoom raq ñi nekk ci ñoom yaay ñi mu nekk ci ñoom xarit tata Ndeye faatu Ndaw yàlla dogaloon na heure bi euh, buñ daan def live daka daan fekk saan mu toog bokk ci ñi nga xamante ni du am jàmm tànk dugul mu nekk soxna boo xamante ni bokk na cinq dimension daaw bokk cinq dimension ren ba euh, daal di préparer sax li nga xam ne mooy exposé ba daal di wane li nga xamante ni ndeysaan mooy li mu jàng nekk femme bu brave bu jàmbaare femme boo xamante ni euh, elle était dévouée pour ndeysaan defar addinaam ak alaxiram ndax comme ni ñu leen koy waxee cinq d du rek sa addina. développement personnel bi ñuy def ñun bu cinq dimension bi li tax mu uteeg développement personnel yi ngeen di dégg da euh, partout mooy développement personnel bi dafa am volet addina am volet alaxira surtout volet alaxira bi lool day nekk lu ñuy taxaw ndax ku baaxul ci àddina doo baax ci alaxira suñu tata boobu nag teel ko comprendre teel a comprendre moom li ko indi si Firdawsi coaching nekk nit boo xamante ni vraiment elle nous a tout marqué elle a fait de travaux yoo xamante ni doolil ñu aussi ci lu ñu jàng mais taxawuñu aussi d'une manière boo xamante ni suñu formation yàlla jël ko ci mën nañ ne semaine yi passé ndax dañu bëggoon def suñu euh, mën nañ ne suñu euh, live bi depuis dimanche bi passé yàlla dogal yàlla jël ko ci entre entre temps mu nekk lu ñu bett nekk lu ñu jëlee kaw nekk loo xamante ni euh, metti na waaye nag comme niñ koy jàngee chaque jour mu mel ni yàlla suñu borom daf ñuy confirmer loolu daf ñuy wan ni li ngeen di jàng des fois pratique bi day daal di tege ñu xool naka ngeen koy jëlee yàlla suñu borom jël ko nag mu nekk jël boo xamante ni dañuy wax rek sant yàlla ndax fekk na ko ci li neex yàlla fekk na ko ci mu nekk ci di dund tawxiidam dund goo xamante ni amu ci maslaxa amu ci kersa amu ci muy seet fekk na ko mu nekk ci rafetal fekk ko mu nekk ci yiw goo xamante ni ñun mënuñu lu dul rek rafet njortu ginnaaw yàlla suñu borom li mu ko santoon mi ngi ci mu nekk nag soxna soo xamante ni li ñu gën a marqué ak li ñu gën a euh, neex mooy daf ñu daan wax que ni ndakate aljana ci kaw suuf am na bi ma nekkee ci cinq d ba tey sama xol dafa féex sama xol dafa naat ñëpp baal naa leen man baal naa ñëpp Fatima Zahra addina bi ndakate jarul dara ay ñun yàlla daf ñu bëgg ay kàddoom su ma koy répété day nekk loo xamante ni vraiment bugguma euh, jooy parce que je vois que sama émotion mu ngi yéeg mais juste pour wax rek ni addina bi képp koo xamante ni yaa ngi fi nekk sóoraaleel que ni missionnaire nga bés day jot da ngay dem kon ñu bàyyi xel que ni li yóbbu ci temps day faatu bàyyiwuñ fi mu nekk koo xam ne du mag mu ngi fi bàyyi ay doom xale yu ndaw bàyyi fi jëkkër bàyyi fi ay mag bàyyi fi ay rak bàyyi fi ñëpp kon loolu rek war nañu tey bu ñuy dund nañu bàyyi di dund ngir ay jëkkër ngir ay njikke ngir ay goro ngir population bi ngir société bi nañu dund pour yàlla suñu borom dund pour suñu bopp dund pour suñu njaboot parce que boo deewee responsabilité yi la la yàlla di laaj kan mooy sa borom noo ko jaamoo woon kan mooy sooy ren ndax toppoon nga ko la nga doon jàng ci àddina bii bu ci sa diine bokkul mooy yow amoo chance boole ko tamit ñu xam ne njaboot gi ñu yàlla dénk amaana la mooy lan mooy responsabilité la te responsabilité bu ñu bàyyiwul xel que ni euh, dañ ci war a maanaam dañ ko war a rafetal dañ ko war a sellal day nekk loo xam ne dañ koy yàq kon ñuy sant yàlla di gis ni vraiment expérience bu douleur la waaye expérience la boo xamante ni dañuy ñaan yàlla bépp soxna boo xam ne rek yàlla mu lay jël mu fekk la ci yoon nga tegu ci yoonu siraatul mustaqim ndax ki tegu ci yoonu siraatul mustaqim pertul kon ñu ngi leen di jaajëfal di leen tamit ci seen temps bi ñu jël di leen wax ngeen yegg si ak jàmm tamit képp ku bëgg a participer rek. nag xam na ne waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw coach. waaw Fana ñu ne la nañ la. ñu ngi lay delloo ziar. ñu ngi lay jaajëfal macha allah yegg si nañ teewlu nañ ko. macha allah mu tuddee tudd ma musóor bi. <laughs> bi laay laaj waaw musóor bi daal soo paree moom naa ko lijjanti daal ci suuf. Ah, incha allah ah, dañ daal man tam maa ci ñam ñabal bi gën. def ko macha allah na lool. macha ñuy wax amin rek ci ñaan li nga xam ne tey seede nga ko ci Tata Ndeye defe naa amuñu dara luñ ci dolli. ndax daanaka soo waxee rek ñun ñëpp nga waxal. kon dañuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko aljana. man de damay wax ne coach fi maam si sa jeexale sax fa laay commencé. Mhm. ma di ko jaajëfal moom tamit euh, macha allah. wante coach dañuy wax rek mais dañuy wax man de dans la vie. Mhm. j'étais une personne boo xam ne jete toujours objectif. Mhm. mooy fu ma toll dama daan wax samay objectif lan la may bind. di ko jéem a suivre à chaque fois may renouveler gis nga bu nouvelle an di jot. samay objectif dama koy bind objectif de l'année dama koy bind. su ma demee ba muy année bi dinaa renouveler di ko topp di ko topp mais damay gis ne à chaque fois da gis ne bo viser benn objectif benn doo ko atteindre wala dina am lu des loo xam ne day doo des lu capital mais doo xam le pourquoi yow tu te poses la question à chaque fois man lan laa deful lan moo tax lii pourtant action yi ma tegoon yëpp je l'ai lan moo des mm-hmm. mais coach je me suis rendu compte que ne c'est parce mm-hmm. que l'objectif la plus importante dama ko bàyyi woon ginnaaw te objectif boobu mën naa ne ci cinq d si say formation yi ma jaar ci la comprendre ne objectif boo mun ti am objectif sa digganteeg sa borom mooy premier objectif bi nit ko war a viser war ko travailler te man ci yow laa xamee loolu. alhamdulilah wallaahi laazim ko gis nga objectif boobu nekkite moom laa doon bàyyi te xaw ma woon ne c'est la plus importante ma xam ne rek adduna bi nekkite lépp looy ut di ci daw di ci jàpp. balaa nga ciy def lu toll ni tar fatal ay ni balaa nga ciy yëkkati benn petit doigt jéemal lijjanti xool d'abord est-ce que sa digganteeg sa borom taxaw na ba pare est-ce que normal na est-ce que yow sa digganteeg sa borom set na def nga ci li ci war wallaay lanzim course gis nga sa phrase boobu keroog ba ma ko déggee laa commencé waat la ma planifié woon dama koo defaraat dama ko jiital ci kaw ndax après li ma comprendre mooy sa digganteeg sa borom nekkete su baaxee wala boog yaa ngi ciy def li nga mën jiital ko. Mhm. jéem a setal sa tawxiid jéem a xool yow li lay yenentu bi sant est-ce que yaa ngi ci lan nga ci dolli lu ci mhm. bokkul lan nga nekk di def loo xam ne daf koy ñagasal wala loo xam ne daf lay gën a sori sa borom wala loo xam ne mhm. ëllëg vraiment da gis ne tu perdais ton temps mais nekkoo woon ci li nga war a nekk gis nga loolu bi ma ko comprendre ba commencé ko defar laa gis ne ndekete bu loolu normalé yow li li ngay njëkk a sentir mooy confiance en soi bi nga amoon ci sa borom yow day yokk ndax daan coach daan nañ ko ñaan de mais dañ ko daan ñaan ba pare ëlbatiku di jéemal suñ bopp leneen ci suuf comme si moom wóoluwuñ ko comme si ñaan nañ ko rek mais liñ koy ñaan au fond fond de ci suñu biir xol lu kenn dul sentir dañuy yëg ne ñaan nañ ko de mm-hmm. amaana mën nañu may waaye day mel ni day yéex wala dañuy yàqamti wala day am lu des ko defee ñuy jéem leneen loolu mooy wóoluwuñ ko woon dëgg la mais coach bi ñu comprendre loolu ak yow wallaahi dañoo jékki-jékki rek xam ne ndekete bu loolu baaxee lee day yomb parce que après yeneen objectif yi nga am pour addina pour sa àddina ñëw pour sa liggéey jàll fondement ba dafa baax léegi nag voilà voilà man gis nga formation bi niveau boobu daf ma dama cee yëg loo xam ne musuma koo yëg ba ma juddoo ba léegi léegi mm. da ngay comprendre su lii baaxee rek su lii normalé wala yaa ngi ciy jéem li nga mën wallaay nazim leneen loo visé muy sa wàllu liggéey muy sa wàllu doom mhm. sa éducation des enfants nga di ñu ko jàngal muy mhm. aussi à chaque fois muy sa relation ak sa bopp sa relation ak sa nit ak sa relation ak képp ko nekkal ci àdduna bi donc loolu yëpp nga doon ko planifier pour xool nooy def ba mu normal sa business di dem yow da gis ne mhm. boo taxawee ñaan sa borom ba pare rek après booy liggéey confiance ngay liggéey ndax da nga naan lii ñaan naa ko yàlla te dina ma ko may donc da nga dem jusqu'au da joxe ba joxe loo amul parce que da ngay ne ki ko ñaan boo góorgóorloo da lay defal. may la. Mhm. waaw kon mën naa ne ak yow vraiment suñu volet euh, suñu digganteeg suñu borom defar nañ ko ñu ngi ciy jéem boog xam naa ne sax lépp matul. Mhm. waaye ñu ngi mhm. góorgóorlu incha allah. dañ la koy sante waaw dañ la koy sante suñu ci pare itam vraiment ma nee naa formation bi beneen acte bi nga xam ne vraiment permettre na ma ko te xam naa ne mbokk soxna yu bari am nañ ci loolu mooy. conscientisation bi coach coach di mhm. def chaque jour nga nekk di def te doo posé wu question yow li ngay def sax ni nga koy defee le comment lijjanti woo ko yaa ngi def rek après c'est ça doo xam mu ko résultat bi ngay am du la neex parce mhm. que yow yaa ngi def mais tu n'es pas consciente mhm. mais ak formation yi da ngay gis conscient c'est ça automatique waaw automatique automatique <laughs> coach dañuy gis ne sax même si sa wàllu automatique yow da ngay def pour def mais soo paree nga tourné lijjantiwoo mais course tey da ngay gis sa wàllu sol sax ñamalal gars yi ci subconscient bi ñamalal leen lu tax ngay def pilote automatique boobu rek xam nga lan moo tax def li te ma ko bàyyi lan ko bàyyi <laughs> <laughs> parce que course xam nga lu ah? waral loolu xam nga lu waral loolu parce que course hmm. boobu xamuñu suñu bopp hmm. xalaatuñ ci suñu bopp xamuñu ñun lan moo ñuy animé la lu tax ñuy def lii ñu dañ doon def pour def mm-hmm. mais bi ñu demee ba ci biir ñu comprendre nga jàngal ñu li ñuy wax les blessures de l'âme mm-hmm. foofu la ñu dooree nag di comprendre le pourquoi du comment ñu commencé mm-hmm. nag di def évaluation di xool ñu gis ne kon ku mel ni man tey am na noo xam ne daan naa ko doxalee sama diggante ak samay morom am na loo xam ne daan naa ko supporté te neexuma am na réaction yoo xam ne daan naa ko amee neexuma woon daan naa ci sama bopp di ci mere sama bopp ko parfois ah. itam man bëgg a def dara bëgg ko defee d'une certaine manière mais damay jékki-jékki defee ko neneen parce que man ndekete loolu mooy sama motivation mm-hmm. waaw te li ko mooy blessure yi ma amoon moo ma doon motiver mais coach bi ñu mm-hmm. comprendre yow ak loolu ci blessure yi nga jàngal ñu nag ne ñu kon lii mooy affaire bi ku nekk bi nga ko xamee nga jàngal ñu nooy def ba loolu wér parce que ñun da jàppoon ne feebar hôpital ngay dem foo nga tëdd et cetera alors que ndekete ñu coach wallaay dañoo feebaroon tant tuddoo di naan garab yow feebaroo tant que tëdd feebaroo fekk ndekete on est malade malade mentalement xol yi feebar léeg-léeg nga mere nit te doo xam lu ko waral mais coach bu ñu jàngee mhm. blessure yi jàng guérison yi jàng aussi affaire ba mu ne par la force coach dañoo baal suñu bopp comprendre lan moo tax ñuy doxalee nii ba suñ ko defatee dootuñu metti mais aussi ñu comprendre ne kon ki ma doon mere ndax li mu doon def ndekete moom it li ma dal moo ko dal amaana yëgu ko wala la muy na ko may baal nit ñi di baal sa bopp <laughs> baal say waajur comprendre nit ñi ba finalement doo kenn doo kenn lenn yow sa bopp sax dalay doy ñun nekk pour bu ñu xëyee ci suñu bopp la ñuy xëy sa bopp baakaar la ñuy yenn ci la ñuy fanaan waaw duñ ci pare li comme macha allah coach jazakallah affaire bi moom kenn mënta wax lépp li si Cissé di wax mais ñu ngi lay jaajëfal bul bul wàcc comme ça. comme yéen ñeneen kii bi bi la ñuy woote maa ñaa ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal ak jàmm. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa for na rek dégg nga tuuti. waaw for na ñu ngi lay dégg bu baax maa ñaa leader nga. Ah, <laughs> bokkoo ci ba léegi maa ngi laaj. ay ay waay yii tey waa tey moom dañoo amoon ay problème technique yu garaaw sax. yàlla na ko yëkkati waaw waaw waaw dinañ wax asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. di la jaajëfal sunu coach international. ñu ngi lay ziar la nga daal si ma ni naa ko ji. Ah, naa ko jiite. waaw dama waaye ma ni naa ko jiite ndax nit ñi déglu. amin amin parce que man dan maa dugal ci groupe. ban may mm. dugal ma foog ni mbootaay la. Mm-hmm. amin amin ma dugg ndax dañ ni néegu sëy. Mm-hmm. dinañu muur sëy cër. ma ne kon mbootaayu jigéen la ma dugg ci nag. gerte mm-hmm. euh, fekk ay waxtaan fekk ay waxtaan ndekete raw na loolu. Mm-hmm. ndax formation la parce que mbootaay benn fan la ñaar ñett ñaar du am sax tem. Mm-hmm. bi ma duggee nag ndekete fii mën naa ne école la. parce que nous étions en formation. depuis quatre man na depuis deux ans laa ci ne mais am na ñu ma ci jiitu. dëgg la bi ma ñëwee. li tax réfléchir moon parce que ki a dugal fu ma dugal ma dem. man mhm. xam naa ne dof ak dina jàpp ko. léegi mhm. ma man li may bëggal lépp. Mhm. foog ne xam naa sama bopp ndeke xaw ma sax sama bopp. bay xam jàmbur bay xam keneen. wallaahi kon amaana problème yu ma mas am ci àdduna bu dee am na. ndax du ñàkk ndax problème bi ngay wax problème la. problème bi ngay denc problème la. la. Mhm. problème bi ngay jël di ko nguumtoo problème la. Mhm. mais ku ne may muñ di muñ. Mhm. parfois ma foog ne kenn parfois ma foog ne man la. ndekete yoo ñàkk xam sama bopp bay xam keneen. wallaahi. ñu ngi fëgg sa naan man man ndekete ñun xamuñu sax sama bopp. wax di ma ci ba formation bi daw. may doog xool ne ndekete ñu ngi doon def depuis sunu maam yi sunu yaay nu koy. doon na dëgg la dëgg la ba fii nu toll. di ci yar sunuy doom xale bi màgg nag. nga mhm. sikk ko. Mhm. xale bi màgg nga koy jéppi. xale bi màgg nga koy comparé fekk lépp yow a wala à quatre vingt pour cent. doy na waar. nu toog tuuti di soppeeku ci ñun. Mhm. ndekete firdaws moom nga ko tuddee. ndekete daa ñëw pour defar sunu dund mooy

waaw ah, allez-y. ça va. waaw booba ñu ngi defar suñu jikko yi. Mm-hmm. defar jikko bi mi ngi war a jëkk commencé ci yow ba defar keneen naan yaa ngi yar sa doom te yow sa boo moytu. gën a yaru ndax yàlla bu ko bëggee defar ka. dëgg la yow nga tënk xale bi. Mm-hmm. nga taf xale bi nga fatt xale bi. ëllëg mu am ay jikko ba lay mm-hmm. léegi nag nga koy sikk kon ñun yàlla rek nu dimbale ba nu toll fii bu mën a toog xam ne dañoo feebar ba mën a ñëw dugg ci. wallaahi fii ñuy wax développement personnel pour def bi ñu ñëwee yow nga commencé nu mm-hmm. settantal ndax ni nga settantale mooy ay jullit la mu mm-hmm. coach yi bare na ci Sénégal mais coach bu mel na yow jafe na ndax ku yor sa tamit bala ngaa dugg nu dafa la euh, mën naa ne dan lay jëkk dañuy sélectionné disons mm-hmm. ndax am na ñu fi dugg duñu yàgg dem parce que xam na ni mënuñu fee ne dëgg la am ñuy dem ba mu yàgg commencé wér gëm ak bañ a gëm wala nekk nu nu génn dëgg la nga yor sa tamit ku ci yàgg ba léegi parce que tamit bi segg na la ba nga natt sa bopp. a waxati ko nattuwaay la de. nga boole koog nag boole noog oustaz bu ñuy joyanti. dëgg la. mu ñuy wax dëgg. nga ne bala noo mën a jàng foog nu am taw féexu xol ndax nit bu féexul du mën a jàng. waaw dëgg la de. suñu xol féex nu bëgg suñu bopp gëm suñu bopp. lu ñuy def nan nga jëkkee suñu bopp. ndax c'était le contraire ñun ñëpp. keneen ngay satisfaire sa jëkkër sa doom sa goro sa dëkkaale sa yaay sa papa sa bopp. loolu dafa jigéen ñi ci Sénégal yëpp. rawatina suñu groupe bi. wallaahi. kon pour bañ a guddal na xam naa ni nit ñi na noo toog. Mm-hmm. bi ñu defee formation bi. mu bare woon ay ngëm-ngëm ak ay tabu yu gëm yooyu yëpp nga raxas ko ba mu set defal na lavage de cerveau. Mm-hmm. <laughs> ba bopp yi set ba yu bari dañ ci ay ngëm-ngëm ba nu dem ba xam ne ndekete man bu doon maa ngi doon euh, sikk sama dëkkaale wala sama borom kër wala keneen dix. Mhm. ndekete cinq yëpp ci man la. ah léegi comprendre nga. Mhm. kon nga commencé dindi loolu ba pare. Mhm. nga doog a nag mën a xam keneen. yërëm sa bopp yërëm nit ñi nga xam ne. ma ngoog yow yaa am boobu mais euh, yow sa bopp yaa sikki noonu kon maa sikki keneen kon man bu ma baalee sama bopp war a mën a baal keneen. <laughs> wallaahi waxati ko wallaahi dëgg la nga indi saafara nag mangook nga indi saafara nag ci mhm. sunu dund nga ne fedda su lenn lu dul indi jàmm ci kër yi mhm. jàmm ci sunu oh, kii sunu dundin mhm. pour dimbale jigéen ñi nag bu nee jigéen ñi góor ñaa ngi ci biir parce que jigéen moo yar góor bu jigéen ñi xale yaa ngi ci biir bu nee néegu sëy du ñi sëy rek ñi sëyu la nga ci ay célibataire nga ci ay maire yu dem ba mënatoon wallaahi waxati ko kenn ci wu man mii da jàmme xol laa ci wut ak ma daan yedd di la réeral ndax na ma maam yare woon ak yaay ma jéem a léegi xoolaat sama yeddin maa ñaaña laal nga fu am solo laal nga fu am solo lu tax yéen lu tax yéen mag ñi ngeen war a def ngeen war a def Firdaws Coaching ah. la tey boo doon digal xale yi lan moo tax yéen mag ñi parce que ku nekk dina ne waaw ah, mag bu dem ba sëy ba am ay doom yoo am ay trente et quelque am ay sët kooku lu muy def ci développement personnel parce que nit ñi dañu ba dañu wala dañ naan ah sama wàllu wëy na wax ñu lan moo tax mag ñi <laughs> mag ñi war a ñëw def Firdaws coaching. sa wàllu wéy na te yaa ngi yàq société bi te yëgoo. <laughs> waaw loolu day nga naan ko muñal. dellul mu muñ ba ki lan lay jox exemple koo xam ne daal xëy rek dee te yàgg na am problème di wax yaayam déglu ko mu naan ko muñal saytule. wallaahi. mu jigi xale bi dootul am fu mu waxee. xool ay man jël nañu la jigéen ñi rek ak feebaru tension cancer ak yeneen. wallaahi waxati ko. te looloo ko indi. waaw ah, te jàng ngeen si fi daw si mm. ko ci que ni suñu environnement suñu dund mën nañu indil ay feebar yu réel loolu nag ah, sénégalais yi gëmaguñ ko ba tey. moom rek man ngoog te ci góor jigéen ñi rek nga koy gis bariwul ci jigéen ñi de man de eh, goatal mosuma ko gis ci góor. xëy na ah, waaw yàlla la ko taxaw <laughs> mooy man de dégg nga. ba ma juddoo ba gis. waaw <laughs> duñ ne amul de waaye rarement. ah ah gisaguma ko de. wallaahi wax dëgg yàlla kon nag pour gàttal yow da nga ñëw pour dimbale jigéen ñi ñu war la sant ci loolu. Mm-hmm. te yow foo publicité. Mm-hmm. defaandoo ko ñun ñoo koy def ndax li mu koy def mooy gi yërëm jigéen ñi. bëgg mm-hmm. leen a dimbale. sant yàlla ndax daaw ba ma ci nekkee bu fekkoon neexul du ma duggaat ren. waaw loolu de dëgg la. waaye même bu ma duggul maa ngi ci suuf di liggéey ndax maa ngi am ñu may dugal maa ngi leen di wax ñu ngi dégg ñenn ñi xaw a dëgër bopp dégguñu wala ku bëggul defaru. Mm-hmm. yàlla na nga defaru doo dugg. ah lii Firdawsi Firdawsi la de cinquième classe la. ku yàlla bëggul doo fa jaar. <laughs> da ngay yor mën nga yor fii xaalis boo gëmul. mooy mooy bi nga doon wax ñàkk fayda. bi nga doon wax mooy dikkaat rek. mangook kon nag mm-hmm. euh, daal damay ñaax sama xale euh, doom yi. Mm-hmm. ñaax sama morom yi sax jafe na ndax booy wax sax bala ngaa pare naa waa mère bi lu muy jàng. yow nga ne da ngay def examen da ngay nangam fan yii ñuy def exposé <laughs> man may ñaax xale yi ñaax euh, njagamaar yi. Mm-hmm. ñaax ñu ci bare pour noonu góorgóorlu. dugg ci lii pour dimbali seen bopp. jamono ji metti na. te ñun même bu dee suñu jamono metti woon na social am na. Mhm. amoon na ndax da nga daan dimbalante. Mhm. ah waaye jamono gi ma gis bopp sa bopp la. kon nag ku ne war nga defar. Mhm. Ah, ku amul dara sax am ni paradis terrestre muy sa feexu xol. waaw ah, a yar say doom ci jàmm maa ñaañu yàq yar yi ni ñuy jiiñ ah. xale yi dafa bëri. te yaay yi dafa mel ni dañuy sentir incapacité. man nag damay laajte rek tey moom laajte laa fi nekkee ndax Firdaws coaching joxe na ay ay clé yu ñuy yare wala daf ñuy wax noonu rek ay wax yoo xam ne du tegu fenn ndax yow enseignante nga woon kon xam nga bu baax difficulté yi ah. waajur yi di di jànkoonteel yow nga jox nu ba jox nu ay exemple ba man bu doon damay jàngale waat wala may yaraat dama koy wax sax ba léegi laa koy wax benn ku góor sama tailleur bu fi ñëw naroon mais live bee am problème ma bañ xam bu ma ko dugalee mhm. du am la moom ci boppam mu ni ma lii de jar naa dugg en tant que góor mhm. mu ma nax bare na lu ñuy jiiñ suñu xale yi ak dóor yi ak yeneen ak yeneen mhm. eh, euh, ta fekk du ci ñoom ci ñun la ma ne que li gën a metti mooy da am sa doom nga tamal ko dóor tamal ko saaga tamal ko xas yow a ko dara mu ñëw école école waroon doon continuité. ñu mhm. tere yooyu effectivement y' a problème. Mhm. parce que quatre vingt élèves cent. Mhm. te bokk nu façon yarin kon ñun ñëpp foog nu lëkkaloo ñun. parents d'élèves yi enseignants yi ñëpp. bu nu lëkkaloo rek yar bi mën a dem sinon on va perdre du temps pour rien. te fi daw jox nañu ay clé ba nga xam ne man fii mu ne de bu ma gisee kuy dóor démb rek am na fu ma ko gis dama tiit di lox te pourtant dama daan dóor. waaye maa ni mu defee rek lu ga gaaw liir na ni eh, eh, kii am na problème maa ngi ko commencé am fu ma ko am naa léegi déformation bëgg am fu ma ko féetale. diagnostic diagnostic sama xeet bind na de ma ne <laughs> yàqu naa te sama loxo bi gënoon a gaaw waaye yëg nga léegi j'ai peur. billaay j'ai peur de faire diagnostiqué nga fa de. macha allah waaw waaw Fane Faye Ndao dañ lay diagnostiqué ci saa si <laughs> sant yàlla kii bi nit ñi toog dañoo xaw a kii moo tax macha allah lii moom kenn ko wax formation quatre mois te kenn bëggul mu jeex ah. ko wax ci quelque kontaan nañu waa kontaan nañu bu baax intervention bi am na solo di la jaajëfal mu nekk suñu maman bu am sagesse maa bu modeste boo xam ne mu ngi si groupe bi ah di jëflante ak ñun jëflante bu rafet ah bokk ci ay formation di jàng di ci indi li nga xam ne tamit mooy xam-xamam vécu ak lépp li nga xamante ni rek salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah kooku. man la Coro. coach Fatima ñu ngi leen daa mel ni ñaari nit laa jël de na am ko bàyyi moromam de. Eh, ki du ah, ah, waaw <laughs> man man la Mareetu bàyyi ma xaar Coro. kon xaaral Coro kon. waaw <laughs> leen di ziar uh-huh. ñi fi nekk ci panel bi. Hmm? ñu ngi lay delloo ziar coach ah di ko wax comme d'habitude rek. Euh, man bokkuma woon sax d'accord bu la neexee waaw waaw baax na mhm. waaw voilà ma ne ko di di gërëm ñi fi nekk ñëpp di ko teewlu bu baax a baax macha allah. macha allah man nag saison bi voilà. depuis mm-hmm. début live bi maa ngi mais dama comprendre woon nañuy tëj nii ñoo doon ñoom seen bis la tey daal voilà moo tax yëpp. waaw dëgg la dëgg la. mais ah. bon kon. yow bokkoo ci bii bokkoo ci bee ci bële nga bokk. bokkuma ci naa ne première session 2022 bi laa bokkoon. waaw incha allah war <laughs> bu septembre bi incha allah dinaa bokk. parce que yaa ngi ci biir ni ko femme yi waxee rek benn rek doyul en fait. benn rek doyul ah. mais yenn saa yi nga. bu ren bi daa tàng de laajal femme yi rien à voir <laughs> waaw te gis naa ne ñoom tam comme ñun rek ñun tam bi nga waree tëj ñun bëgguñoo génn chaque jour nga ne tam bi tëj leen duñu bëgg a def <laughs> kon bii tam kon j'imagine j'imagine li femme yi di wax mhm. kon dëgg rek moo ñu fi moo ñu fi teg tey du publicité mensongère du mhm. jaay lu amul du ut nit en fait man en fait mhm. benn laa def mais ci benn boobu xëy na ak capacité ak ak euh, gëm-gëm bi ma si duggee woon xëy na yàlla di dimbali na ma ba ma ma nekk ubbi yeneen sama àdduna yoo xamante ne tey jot sax moo tax dugguma si ñaar yi ndax xam naa ne ku dugg moom école ndawkatu jàng moom bëggoo ko Coro <laughs> Coro may ma tuuti ma ca baxal foofu dara dama doon wax femme yi man ni leen bi ñu commencé def euh, cours euh, gestion familial ak euh, gestion du temps et financière uh-huh. soxna yi gisatuma leen ma leen yéen da ngeen di bëgg bu ngeen jàngee cours gestion financière yi rek dem uti xaalis ba xaalis bi dugg na ngeen commencé fàtte yéen li leen joxoon motivation yéen lan mooy <laughs> man de looloo ma dal looloo ma dal wax dëgg yàlla waa di di rebondir si sama ñaaña wax léegi fi mu fi mu mooy éducation xale yi ndax ñun mm-hmm. ñëpp foog naa en tant que sénégalaise dañu yar si en fait mm, comme en fait suñu moomeel lañ en fait suñu doom yi moom lañu mës a dundee sama doom la fi mm-hmm. ma neex lay aw lii laa bëgg lii lay mm-hmm. def par la force te moomeel boobu moom lañu moom la ñu lawal en fait ba suñu digganteeg suñu borom kër yi suñu digganteeg suñu <laughs> moo ëpp solo man si li ma gën a marqué si loolu la bokk si xam ne moomuñu dara moomuñu suñu bopp moomuñu li ñu mhm. yàlla yàlla daf ñu dénk en fait boole ñu ak ay nit rek ñu war si bay suñu waa loolu foog naan ko comprendre yaay bu ko comprendre say doom dinañ la sant dinañ sant waaw coach Fatima dinañ sant cinq d parce que si si si si si noonu ngay jóge mën a dem am éducation bienveillante boobu ngay wax ñu am yërmande suñu doom yi dóor moom dootoo ko mën a def te dootoo mën a supporter sax ku taxaw di xas xale wala di ko mettital wala di ko dóor ndax di nga xam ne mhm. yaay ji moo yaay ji taxaw di dóor nga xam ne mhm. yow yaay ku jaar cinq de di nga xam ne adulte bi di maltraité xale bi adulte bi si moom moo war a yaru yaru ji waat moom moo am problème mhm. moom moo feebar donc loolu c'est très important pour bañ a guddal daal ah wàllu sëy waxatu ko comme ku dugg moom ku si mel ni man <laughs> waaw ba ba tegu si raay bi da ngay <laughs> da ngay yoon boobu rek di daw mi ngi noonu. wallaahi sant yàlla. Coro hmm? eh, am na kuy laajte eh, origine possession boobu fan lañ ko jëlee. origine possession bi origine. maanaam ñun ñu bëgg sama jëkkër sama doom lu ma li ma bëgg la war a def wala sama jëkkër lu tax def lii. affaire xam ni coupelee seen micro yi soxna yi possession boobu nga xam ne ñun soxna yi moo ñu teree dund parce que nag bu dee dëgg la bëgg a dégg. jigéen ñi am ñoo xam ne dunduñu dunduñu ndax fiiraange ndax sa doom nga topp ko sa jëkkër nga topp ko yaw nit ñi daal mu mel ni yàlla daf leen bind pour yow ñu war a satisfaire ses plaisirs buñ ko deful yow nga jaxase sa àddina waaw manque de confiance dépendance ak dafay def comme li nga wax borom lunette yi ragal ragal ragal yi seen lunette <laughs> ragal <laughs> lañ yor seen filtre bopp lañ yor noonu filtre yi entourage yëpp en fait <laughs> donc ah, nekk en fait te ñuy wax ne eh, nit ki loo ragal le comme li ngay wax loolu tam dama ko jàpp si. loo ragal ngat rek xamal ne nga ko daan ko woo donc loolu c'est très important. li fi lépp daal kenn mënu koo wax man voilà ça fait deux ans mu ngi nii dugguma mais voilà maa ngi maa ngi suivre si réseau yi maa ngi taxaw maa ngi woote maa ngi partage vidéo di wax famille. wallaahi lii moo ëpp ñuy def. lii moo ëpp solo ngeen yi ñuy def. lii moo ëpp solo. wala perte de bi ñuy perte. temps temps bi ñuy perte comprendre ñu da ngeen def ñu ne affaire de groupe moom ay affaire de groupe xam nga ni lii groupe lii formation la te li si neex mooy li may wax chaque jour da ngay làmb daj xam nga loo xamante ne uh-huh. da ngay ñëw tey te Sénégalais xam nga amul hmm. ñuy daw si maamën yéeg machine noire kii léegi la lay defal nga gis léegi parce que lan amuñu patience jooni jooni boobu nag ñuy daw lii nga koy am si développement personnel boo xam ne dafa dañ ko segg xam nga nga koy am doguma la hmm. doguma la mais xam nga 5D euh, daf lay delloowaat ci sa borom jàngal la gis yàlla ni mu nekkee ku illimité infini. yàlla yow noonu la la bindee à son image ndax yàlla dafa ne dafa la bindee à son image mooy yow aussi tu es illimité infini ci li nga xam ni mooy li la yàlla jox ci sa ay pouvoir nga mën ko wéyal ci kaw suuf mooy soxla woo sëriñ en fait. ndax yàlla jox na lay aptitude. Mm-hmm. donc euh, c'est ça donc soxna yi comprendre ñu lan développement personnel nan la mën a ne ciix sa biir xol bi génnee la yow jox la essence génnee gaynde bi nekk ci yow pour nga mën a ak exceller keroon euh, yow yow fi nga tolloon ak fi nga tolloon euh, ren am na différence ci sa ci sa business bu mag bu mag man pour bàyyi déjà bàyyi vocal sax suñu groupe boobu nga xam ne ñaata nit lañu woon sax c'était tout un problème a plus ñaata nit lay xool si si TikTok bi di la xool si si mm. Facebook bi di la déglu parce que dem nga ba am na lu tuuti même boo matalagul moom parce que comme li may wax benn mhm. formation doyul. mais même mhm. boo matalagul am na lu tuuti loo xam ne yaa ngi koy jaar yaa ngi koy jéem ci sa bopp voilà ah, yaa ngi koy jéem sa bopp yaa ngi a mhm. sa bopp si si en fait tal sa bopp yow dong en a bàyyi sa bopp voilà sa bopp yow yow yow yow yow comme li ngay wax si nit ñi ñu xam ne mën nañu defar mën nañu def lépp te yàlla def ñu bind si ah. infini boobu ku dugg si groupe bi sax man sama kaa wax soo dugalee kuul yi sax booy déglu sax da ngay tiit naan sax xel di la xalaat naan ragal ragal yi naan la waaye yow lii ndax di nit dina mën a def lii boo xam nit dina dem nan la nar a demee question yooyu ngay nekk sa bopp si formation bi gis nga ngay gis a ubbeeku affaire yi di gën a neex en fait mooy làmb daj boobu def lii nekk di def demal nga def lii def lii def lii nga dem def ku le nga gis résultat mhm. te loolu moo neex si kii bi moo tax da ngay dugg rek duggal ba pare mhm. nga xool nga appliqué surtout loolu ngay wax toujours loo jàng nga dem mhm. appliqué ko nga xool da gis mhm. léegi léegi xool résultat moom sa bopp moom sa xel hmm? ba pare coro ñu bëri ñu ngi yor ay doomu adolescent di nekk ak ñoom en conflit yow sa doom mënatoo sax activer amour boobu nga xam ne moo war a nekk ci diggante yaay ak doom boo wéetee da ngay am lu parce que da ngay gis say doom ñu ngi jël distance te distance bi ñuy jël xam nga ni dis waa boobu lan moo koy indi parce que distance boobu mooy ñun jéemuñu ko mooy li ma wax léegi rek comme ñun nekk si si bi surtout dëkk tubaab nekk Europe surtout Europe surtout hmm. ñun en fait dama gis sax liir naa dem benn page groupe boo xam ne dañ doon waxtaan si ne ñoom dañuy door en fait yar moom xale moom foog nga caw ko xale xamul yàlla hmm. yar la xam bon sonalu ma sax sama bopp di si commentaire parce que xam naa seen mentalité fan la toll léegi ma bëggoon leen wax rek ne dóor dóor boobu ngay dóor soo demee ba nga hmm. xamante doom ji xool naa ko il ma koo dóor koo yaree dóor mu ragal la bés bu demee ba mën a too ko dóor nan nga fay yaree c'est ça day loolu moo dal ñun parents adolescents yu bari ñun sax on a de la chance dañu yàlla tàbbalee ñu ñu ñu nekk si ñu mm-hmm. nekkoon si femme cinq d di jàppalante mais Coro Coro euh, excuse-moi xam ne tey dem na ba doomam am 18 ans nekk euh, rébellion kooku est-ce que am na mm-hmm. possibilité rattrapé waat doomam indiwaat ko ci yoon bi tegaat ko tisewaat ay liens yu solide est-ce que mais c'est c'est du chemin c'est du chemin de la mm-hmm. patience ak application mm-hmm. surtout loolu de la patience parce que loo loo tabax yow loo nit lu mu mettre à dix huit ans ba forger ko ci mm-hmm. dundam mënoo xëy un jour rek ne da ngay dam dagg-daggee nii nii mu jàll fi leen comme li nga yow foog ko doon wax xale bu demee la gën a yombee en fait si ñu def si luñ bëgg a en fait loo xamante ne ni buñu leen yaree si bienveillance yar leen si si ñu xam yàlla en fait bañ ñu ragal man bu ma soññee ba si julli beeg kii bi jàpp ngeen parce que dama ne yéen xanaa ay malaaka ngeen seen jàpp du toj mukk suba ba ngeen jàpp nañ am nañ jàpp ñu ne ñu ne G1 jàpp G1 man leen xam ngeen lan la allah il wa il va vous faire il va vous faire xam nga kii dem xoola jàpp kii yor dem jàpp après da ngay jàpp waa pour bañ a guddal daal maa ngi sant ñëpp di leen gërëm di woo femmes yi yéen ñi laajte yëpp boo leen si si profil bi di ngeen gis information yi ngeen soxla yëpp wala ñi commandé man wala keneen koo leen si bind dina leen jox numéro yi ngeen woote ngeen waajal formation a di ñëw septembre incha allah ñu nekk si li ñu war ah dañu ngeen waaw mu ngi noonu gërëm naa leen yéen ñëpp hmm. macha allah yaaraat di waaw <laughs> bàyyi place bi ndax xam naa gaa yaa ngi xaar macha allah ñu ngi kontaan bu baax a baax ah, mhm. parce que am na solo échange bi lu am am solo la may nuyu ziar sama xaritu italien bi di wax ciao Nicoletta <laughs> nee na même suma comprendre looy wax xam naa ne importance la te te neex na donc ñu ngi koy ziar moom tamit di ko jaajëfal waaleykum salaam wa rahmatulah kooku. asalaamaaleykum coach Awa Guèye la. aw Guèye ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wax bu baax a baax. yegsil bu baax Awa ñu ngi lay dalal. ànd ak mbégte ak kontaan bu baax a baax a baax. macha allah Fana sa micro Fana. sa bi. sant yàlla. bien vrai que fin bi neexul ndax bëgguñu fin. wallaahi. doon na loo xam ne ñu ngi jàppale di ñu dimbali bu baax chaque jour bu ñu xëyee di ko yëg ci suñu biir xol. Mm, sant mm-hmm. mais man à chaque fois euh, daaw ak ren yëpp ça fait deux ans ngi bokk. Mm-hmm. nga xam ne fe ñu la mag nga fay fekk loolu rek war la wax ni formation bi du ay caaxaan. wallaahi. bu doon folo wala leneen xaalis ak ni mu sax ci xool kenn du liggéey si xaalis di ko saali fenn loo xam ne ay waxi neen lañ la fay wax. waaw loolu dëgg mm-hmm. chaque année nag euh, rubrique bi ñëw ma bi bii moo gën bii moo gën mais bi ñu demee ba xool au fond la base c'est la spiritualité. Mm-hmm. base bi si diine gi la base bi sa digganteeg sa borom la. wallaahi dëgg la. ndax bu sa digganteeg sa borom baaxul feneen foo dugg da ngay làmbatu ba sonn faju ba sonn yàq sa xaalis mais doo gis changement réellement bi nga war a gis. dëgg la comme ñu ko doon waxee sànq. Mm-hmm. te man de wallaay lazim li ma yëg ci formation cinq d daaw ak ren gis ko mu changé ko ci sama religion. sant yàlla. al mhm. naa alxuraan dem naa daara mais ba tey li ma yëg ci formation cinq d bi durant ces quatre mois ak deux mois yële tuwaay vraiment mas ma mhm. ko yëg ci sama àdduna. sant yàlla alhamdulilah xam nga dara gënul neex ci diine ngay def li ngay def nga am ci assurance sa xel dal. parce que daf la leer ne def nga ko dans les normes ni ñu ko santaane doo def ba pare di am ay jeexi jaaxa. ay doute. Mhm. ay doute te loolu ñun moo sonal Sénégalais te malheureusement duñu ko nangu ndax suñu réew euh, ni mu mel moo tax. mais man j'aurais bien aimé jigéen bu ci bëgg defar sa bopp defar sa ay doom defar sa ëllëg sa àdduna nga ñëw 5D ndax à part diine bi eh, ñun jigéen ñi li ñu sonal mooy suñu sëy yi mm-hmm. ménage chaque jour problème de ménage te problème de ménage yooyu boo ñëwee ba jàkkaarloo Fatima bam xooli la ni soble ne la eh du kenn yow <laughs> jàmbat bi bàyyil jooy bi ki kenn defu la dara yow mii yaay problème bi awa femme yi <laughs> mënuñu gëm loolu femme yi mënuñu gëm yow mën nga changer sa sëy sa état wu sëy ak sa sa njaboot ko gëmaguñ ko pour ñoom ay raxe bàyyi bu loolu demee yoon xoolal yow doo sentir di def nga effort surtout ça <laughs> changement bi day naturel affaire bi day changé ba nga naan mais man lan laa def du arsenal bu bees du astuce de ah, jonge du yére bu bees mais <laughs> affaire yi day changé miraculeusement ba nga toog naan waaw mais ma vie a basculé d'un te man moom côté boobu bokk na ci li gën a tax man ma gën a jàpp fonk de ma gën a jàpp fonk 5D. 5D ndax gis nga maladie chronique maladie chronique boo gis. Mm-hmm. boo ñamee benn traitement mu neex nga bàyyi rek soo toogee day ñëwaat. traitement intense la laaj de. laay laxa illallah faaw nga toog di répété di répété 5D moom ku ko def benn yoon baay neex le wo ku def ñaar bàyyi neex le woo da ngay faaw nga yee sa subconscient bu baax a baax li mu dencoon au fin fond depuis nga mm-hmm. nekk xale. nga mën ko génne mën a jàkkaarloog moom xeex ak moom. Mm-hmm. ndax lu dul loolu rek doo dem imagine li nga ñu jàngal ci blessure de l'âme yi blessure bi nekk loo xam ne jusqu'à la mort du la bàyyi boo jàngul xam nan nga koy gérer nan ngay améliorer affaire bi maîtriser sa bopp yow yaa ngi dund kañagoo xamagoo kañ ngay dee sa dund kañ lay jag di accuser nit ñi bu dee bu wa ñun waa tim boobu noonu may bañ a chaque jour nga culpabiliser dañ ci di victimiser sa bopp <laughs> gis nga dañ maa tooy def ma <laughs> dañ maa tooy laqat billaay di laa xatu di jooy te kenn deful dara yaa tooñ sa bopp. wallaay waxati ko am na ñoo xam ne sax ñu xam ne seen a yërëm ay man dama ko yërëm ndeysaan kon man lii laa doon teg man maa ngi nii <laughs> gis naa sama bopp <laughs> njëkkee bi mu njëkkee bi ma njëkkee découvrir ma toog ne allahu akbar man amee naa doomu jàngo bi ak <laughs> bilaay ko ci Fatima yàlla na dunda dunda dund yàlla suturaal ko sàmm ko ndax boo dee wax nii nii nii sax nit ñi lay dégg dañ ñaan nii dañoo bëgg lu neex kii wala ñii <laughs> dañuy wax pour def pour buzz mais wallaay laazim fay ñu de ñoo koy fay ñun ñoo koy fay ba pare tourné toppaa ci ginnaawam te bu ñu doon dégg sax gëm naa ne <laughs> duñu dem bu ñu doon buub naa ñu eh bu leen duggati sama ah. groupe dañuy forcé di la topp <laughs> vraiment am na solo trop et j'appelle toutes les femmes ah man duñu ne est-ce que kii bagage raxul i raxul xam nga lu tax mu mel nii Mm-hmm. nit ñi duñu comprendre li tax mu mel nii dafa nekk loo xamante ni dafa naturel xam nga li ngay yëg ci sa xol dara mënu ko fay dara mënu ko remplacer yow nga daan toog di am benn rancune doo xam lu tax nga mer wala ngay toog di sentir benn mm-hmm. xat-xatu xol boo xam ne xamoo ku la ko teg nga dem bay toog nit di def lu la daan merloo wala lu lay yëngal nga xool nit ki ree xam ne changement am na nit ki di wax sa blessure <laughs> tey tey tey tey du tey du jàll dañ ñoo plâtré <laughs> <laughs> vraiment vraiment sëñ bi

Mm-hmm. communication interne boobu sénégalais ko mën a communiquer mm-hmm. waaye du communiquer mukk jëmale ci boppam <laughs> sénégalais joxe information rek lañ mën mais pour ñu informé seen bopp ñoom toog wéet mm-hmm. wax ak seen bopp càmbar seen bopp du ñu ko def te ku dul wéet ak sa bopp di nga yàgg a dem te doo am jàmm ak sa propre personne c'est ça am jàmm te loolu yëpp dañ koy jàngale 5D noo ko amul jàmm ko mën a joxe billaay doo ko mën a joxe te gis nga jigéen dafa nekk loo xam ne mooy le socle de la vie man duma wax société mais le socle de la parce que jigéen bi bu normalee sëy bi mën a normal doom yi mhm. mën a normal liggéeyukaay yi ñoo fa ëpp diine ji boo xoolee aussi ñiy mbubboo ci diine yëpp jigéen ñi la ñuy woo mhm. donc jigéen bi bu xamee mooy kan xam xam fi muy teg tànkam rek bu jigéen changé lépp tegu ci yoon lépp changé mooy moteur bi léppay moteur de la mhm. vie vraiment doon na lu am solo loo xam ne 5D man dama naan ëpp na 5D mais 10D la parce que yeneen thèmes yi ngay développé sax yow boole woo ci 5 dimensions yi. Ah, te pourtant ñun dañ koy sentir. day bëri te buñ ko fa buñ ko ci boolee damay ragal après nit ñi ngay def ci biir moom macha allah loolu daal yàlla rek moo la ko mën a fay te ñu ngi ñaan yàlla à chaque fois mu fayal ko bu baax a baax. kumpa boobu nag tant que ñëwoo bu <laughs> dugg ba si biir dugg ba ci biir doo nga xam problème bi mooy mm, comme niñ koy waxee rek dafa nekk loo xamante ne benn kàmb la boo xoolee li ci kaw mm-hmm. da nga naan moo lii lii de moo am fépp mais tant que dugaloo sa loxo jeqi gas ba ci biir ba mm-hmm. nuuru doo mën a xam ne fii il y a différence entre développement personnel ak développement personnel man yàgg naa lire ay développement personnel yàgg topp ñuy def développement personnel mais y a pas photo entre les deux bu fi daw si coaching ak bu yeneen yi xaajuñu bay yam ndax base bi mooy diine bi diine bi ko lal la loolu kese kese doon na loo xam ne jullit bu ko am jaral naa la daw war naa la jaral daw ba dee mm-hmm. ndax suñu diine mooy lu ñuy permettre ñun ñu am suñu àjjana tey pour nga mën ko am faaw nga defar sa àdduna awa doguma la mais diine bu authentique diine boo xam ne du diine ñoom maam du diine ñoom baay du diine dégg naa maanaam diine boo xam ne daf lay tranquilliser ndax mooy suñu problème mooy dañu yaakaar ne l'islam jàppale wuñu ndax ndax mm-hmm. euh, gëmuñu ni ñun suñu diine am na ci pouvoir boo xam ne bu ñu ci nee ciix góor dootul bouger parce que après aptitude yi ñuy am pour neexal suñu sëy c' est incroyable mm-hmm. Mm-hmm. ndax dama ne jonge dafa bokk tamit ci jonge mooy am xam-xam noo koy amee xam sa bopp ba pare xam fi ngay euh, teg sa loxo mu leer la ni tey euh, sëy bu neex comme ni ñu koy waxee jigéen jigéen da defante da lii man am na loo xam ne góor du ko def booy se 5 d dañuy xoolal ndox siw <laughs> <laughs> ay defante ak ay damay am fulla damay jaay femme forte caractère la indépendante la non cinq de niveau de conscience bi ak sagesse bi fa nekk yow ci xam ne loo bëgg da koy am gis nga àddina bi yàlla dafa jox pouvoir boo xam ne yow sa jëkkër da ngay delluwaat xam pouvoir bi am sa jëkkër te lu nga bëgg ci moom da koy am tey femme yi fi jaar yi yëpp ñii seen sëy mu ngi woon am na xam seen sëy bu wutu bi tegoon nañ tànk ci tas benn mën nañu defarwaat ñi nekk ci début mariage aussi yaakaar ni mariage moom daanaka lépp naqaar la ñu ñëw gis ne découvrir ne déedéet ndax si ni nga déparé moo baaxul fausse départ nga def mais y aussi euh, possibilité nga rectifier nga defarwaat mm-hmm. nga tegaat lépp ci base yu claire mooy 5 nga xam ne euh, yàlla suñu borom bu tëj bul te fenêtre wàcce rido te gis nga loolu xam nga lan moo ko defoon ci ñun mauvaise mm-hmm. croyance mauvaise mm-hmm. croyance yi nga xam ne ca suñu ay yaay ñu yare la ko nga màgg ci xàmmee ci moo tax sëy yëpp laa wax li ñu naan baa ngi dans le coma ndax mauvaise croyance yi ñu gëm ci jëmi boppam moo nelawloo sa yëpp ngay xëy di ray sa bopp ci loo xamante ni yaw li ngay wuti mi ngi ci yow hmm, surtout ça lenn hmm, rek nga soxla mooy lu ko yee li ngay nga tey ñu bëri mhm. dañ jox ay ay cof garab di la wax ngay ñëw di fay di jël man am na ñoo xam ne sama première saison lañu bokkoon gisaatuma leen après am na xam ne saison lañu bokk gisaatuma la yow bi boo paree bu la neexee après xamatuma looy dund da nga ko yóbbaale ba ilaa yow mi billaay billaay du Ah, pour ñu comprendre ni nekkul loo xamante ni da nga ñëw après yow dootoo maanaam dootuñu tàqali ko déedéet ci prends tes mhm. Mhm. mu ne. ñaata femmes mariées yu heureux ngeen xam sax. Mhm. donc li ma doon bëgg a associer mooy égal malheur. te cinq de da wax ni yow sa du sa mariage moo la jox bonheur du sa moo la jox bonheur doom moo la jox bonheur lan moo la jox bonheur. nit ki sa bonheur yow yaa ko moom ci yow la nekk. lan moo ko mënoo ko accéder mënoo ko ko am. bilaay bilaay lan mooy problème bi en kon une fois que nga xam problème bi tax mënoo accéder mhm. ni xam ne problème bi yow la mais nit ñi defuñu la waxuñu la gis nga ku nekk sa bonheur ci yow rek la dépendre boo xamee ne yow li nga soxla dëgg pour bég li nga mhm. soxla dëgg pour kontaan yow rek yaa ko xam ku nekk lay bégloo yaa ko xam di mënoo ko xaar ci keneen surtout ça te attente yooyu donc doon na point boo xam ne dalay diisal naxari sa dund à jamais boo génnee ci mbedd bi sañ sa ba ngank sa géej xeeñ sa xeeñ sa parfum bu neex mais yaa gën a naqari xol yaa gën a nekk ci naqar malheureux ki nga xamante se moom amul amul dara mm-hmm. te gis nga nit lépp lu lay permettre nga xam sa bopp intérieurement mm-hmm. lépp lu lay permettre nga mën a xam yow sa yoon bi ngay jaar lépp li lay permettre nga mën a teg sa dund ci axe yu wóor yu leer yu méngoo ak sa diine war naa jàll ay milliards ci say bët te vraiment femmes yi nekk di déglu ak assistante bi ak ñu mën mën a partager après fekk septembre des na xanaa trois mois. Mhm. li ngeen di teggee natt di ko jënd ci jasneer yeeg pin xëy ñëw leen defaru ñëw leen defaru ci si Fatima <laughs> ñëw defar seen xol yi defar seen xel yi. en tout cas sant yàlla kontaan nañu bu baax. vraiment ñoo la gën a kontaan suñu mbégte moom am na commencement mais réellement amul fin. sant te li ma gën a neex aussi mooy chaque jour que Dieu fait da ngay euh, dund ay épreuves yoo xamante ne nii. Euh, lu la daan tax mais bagage yi la yi nga jëlee cinq d ak li nga fa jàng. Mm-hmm. outil mooy doon sa mooy doon sa solution. Mm-hmm. sans nga def effort affaire bi day ñëw naturellement nga naan mais man nan laa def ba man a résoudre lii te autant je ne pouvais pas tu es toujours la même personne. Mm-hmm. nga xam ne sa mentalité changé na sa yëg-yëg changé na. c'est ça. ni nga doon gisee li lay sonal li nga xamante ne nii moom nga doon xool ci nit ñi yëpp dootul sonal sa bopp daf lay doy sëkk barke. ndax nit ki pour nga man taxe ëllëg faaw nga liggéey ko fii ci adduna lu leer lu leer. te àdduna bi li li nga fiy liggéey mënoo koo def billaay mënoo koo def ak xol bu naqari ak xol bu lëndam. Mhm. mënoo koo def ak xel mu dëkk ci jiixi jaaxa faaw nga def ko en étant conscient di dundul affaire bi di ko yëg pour que boo demee ëllëg suñu borom mën la ci fay. surtout sax wax fa yàlla yal na yàlla dooli jàmm. amiin amiin kontaan nañu defal ñu ay ay post yu duun a duun chaque cinq de ñu dugg ku bëgg sax ñu dugal. macha allah <laughs> macha yàlla mën na ko yàlla nañu ko yàlla defal ñu ñëpp. ah di wax kontaan macha allah. da ngay bës man dafa amoon benn vole bu ma bëggoon wax te léegi sax defe naa gis naa benn message ci suuf buy parler de ça. Mm-hmm. waaw parce que maa ngi gis euh, suñu benn mbokk bu ne développement personnel ak euh, diine c'est inco euh, c'est incompatible je sais pas daal. <laughs> ñu taxawaalu waaw ñàkk xam do <laughs> ñàkk a xam li muy waral dafa bari. ñàkk xam bi lay waxati waaw te eh, neexu la comprendre waaye boo ci nekkee yow ci sa bopp yi yaay jékki-jékki. ak a neex waaw mais buñ la koy wax. waaw buñ la koy wax nii te nekkoo fa yow da ngay yaakaar ne lii ay léeb ak lippoon la. waaye buñ la ko wonee rek nga ne ah pourtant nekkete lii c'est possible. ndax li may wax ñun ñii ñëpp. waaw ñun ñii ñëpp kenn ku ci nekk. jàngoon mm-hmm. nga le les les les quatorze lois de de l'univers. ñun ñii mm-hmm. ñëpp ñu nekkee école ñu ko doon dégg ñuy jàngal les lois. loi yaa ngi noonu ay loi divine les lois de la nature yi. waaw loi yooyu xam nga tey boo ko jàngee ci internet da ngay am problème. ndax da ngay am problème xam en tant que c'est ça tey boo ñëwee dafa am sax tey boo ko ne sunnatullah daan ah d'accord sunnatullah je comprends mais koo ne les mm-hmm. loolu affaire formation yi la de. yii parce que gis nga tey bu fekkente ni sa jàng diine soriwul sa jàng ci mhm. développement personnel soriwul parce que ñu bëri mhm. ñu ngi jàng si par exemple ñu bëri ñu ngi nekk si diine mais duñu mhm. jël seen temps xuus gëstu pour comprendre que ni développement personnel am na lu ñuy jël am na lu ñuy sànni ci mbalit comme tout branche voilà léegi day comme fii commentaire mu ne waaw le Coran rek doy na développement personnel waaw waaye dafa am loo xamante ni comme ni ko waxee encore fois boo amee traumatisme doo dem liir ñaari ay alxuraan pour mu faj la da ngay dem xooli psychiatre ah. nga bu jaree garab nga jël garab bu jaree internet ñu internet la mm-hmm. bu jaree aussi ñu lakkat ci la li lënk sa bi nga jëlee nga ko bi ko comprendre mm-hmm. na la mm-hmm. ne coach ma bi ngay jàng sax te déggoo ko munoo cee kennal yàlla parce que comprendre texte bi en son fond boo koy jàng doo ko sentir da dangay gis sénégalais yi sénégalais yi da ngay gis ñu daal di ne bu ñuy tari faatixa ba yegg ci iyaaka nax bu du wa iyaaka nastaxin yàlla yow rek lañuy jaamu te ci yow dimbali koo de yaa wax de mooy ñàkk kóolute gi mhm. mooy yow comprendre faatixa rek mhm. cay wax boo ko comprendre loolu tax nga gis xam-xam day tax sa àddina doo bëri bagage ndax l'islam moom damaa ne lépp lu baax moo ko moom léegi nag dañ koy nangoo jël ñu segg ko filtré ko accaparé ko dund ko wala ñu daal di koy jël rek sànni lépp jalax parce que àddina bi tamit mm. loo gis lu nekk am na lu ci l'islam am wàll tey ku lu ci mel ni euh, réseaux sociaux yi bi muy soog a xew ñu fois gàtt aloo moom day tax rek waxtaan ak nit kooku du yomb waaw ah, man dama ni mmh. tout le temps a communiquer ak moom da ngeen di tolloo niveau sinon te du ko jar. Mmh. waaw même boo nekkee niveau bu inférieur aussi ngay jéem a découvrir xool ñii lan la lan la wax. exactement nga jéem découvrir ba comprendre. waaw mais boo ñëwee rek nga nga. <laughs> waaw nga ñëw gàkkal ko rek taxaw fee def sa jugement waaw loolu doo gaaw a xam doo gaaw te boo accepté wul moom doo gaawa comprendre. kon daal macha allah yal na yàlla dool li taw merci <laughs> macha allah yegg si nag jàmm Mariétu. ko ko suñu xew suñu xew mi man tuuti ma sax pour man ah. pour man ñoom ñoom Khadija ñoo ma ko. <laughs> loolu laa sax damaa tiitoon. en tout naa leen. Euh, ki laajte la numéro euh, pour ñu nekk ci 5D xanaa yéen du ngeen ma ne sama numéro telegram amu leen ko de bu ma ngeen yéeg ci telegram ba ngeen dem jël numéro bi ngeen composé ko bu leen ma tax a wax <laughs> wala ngeen dem sama whatsapp jëli numéro bi parce que tamit euh, yéen mën ngeen woote kii bi mu kii bi waaye TikTok bi du ma leen mën a accepté parce que su ma leen xamul du leen mën a accepté parce que dañuy yor ay profil yu bizarre te bëgguma fee yéegal ñoo xam ne dañuy yéeg di ma sonal ay wax yu kasaw kasaw loolu du suñu yegg si maa yegg maa waaw allah coach allah waaw ñoom nag wax dëgg neex yàlla am na loo xam ne sax man fi nekkaatee di ci wax day doon ab répétition dëgg la ndax gis naa ne pratiquement pratiquement la mm-hmm. majeure partie sax ko mais juste que benn partie laa gis ne ne peut être euh, souligné guñ ko. Mhm. mooy ne am na nit ñoo xam ne parfois xam nga nit ñu fi waxi blessure mhm. na fi. Mhm. nit ki nga dem euh, nga dugg ci 5D. comme ni ko Fara waxee sànq parce que am na benn commentaire bu gis. waaw développement personnel ak islam amuñu yoon man sànq am na kenn koo xam ne lu ma développement personnel yëpp tubaab la mais man tontu ma ko ci parce que aw ma am. ñam naa am naa lu gisal. voilà. da ngay gis nit ñoo xam ne ndeysaan ci seen bi ñu nekkee xale dañuy dund lu metti mën naa ne mën nañu subir benn traumatisme ku dundul ku dundul traumatisme nga yaakaar am na ku traumatisé wu ci xale kenn mucc de waaw nag loolu noonu tey dafay daf mën na def nit ki tey mu am manque de confiance parce que man li tamit c'était mon cas da ngay dem ba nit sax bu fekkente ne nit dalaa xool sax yow da ngay mm-hmm. ruus da nga naan kii de bët la may xoolee ma damay am problème tout le temps tout le temps da di am problème ak nit ñi. nit ñi suñu waxee nga nit ñi dañ laa laal dañ laa tooñ moo tax. ñu lay xool wala lii moo tax mënuñu laa respecté. dëgg la fekk ne yow li loolu yëpp yëpp yëpp ndeysaan ci sa bopp bi la. léegi nag boo demee ba nga découvrir ki ñuy wax coach Fatima Zahra Dieng mu ñëw dugal la rek sànq dee. da raxas ba nga set sànq la ba nga kon si mm-hmm. man li ma gën a neex mooy man paix intérieur bi nga xam ne ne am naa ko surtout ça tey ñu ngi wax naan nit ki nit ki tey li nga xam ne ne moom mooy moom mooy feeñ ci yow mm-hmm. loolu dafa fekk ne moo nekk ci sa biir man ne dama ne nit ku ci nekk boo duggee 5D ba nga génn fa di nga daje ak nit sax mu saagal nga ree ko ku comprendre dina ne kii dafa ñàkk fayda xool kii saaga ma kii xool kii saaga ko moom mu ree ko fekk comprendre yow mi ree reetaan mbégte boobu moo génn ci sa xol dina <laughs> saaga la saaga boobu moo nekk ci xolam jeex na taag c'est simple <laughs> c'est simple <laughs> tu es ce que tu dis waaw mooy tu es ce que tu dis simple. Mhm. juste que nag coach formation bi du yomb. du yomb mhm. comme ni nga ko waxee tout au début di nga gis koo xam ne tout au mhm. gis. parce bi da ngay ñëw teg da ngay ñëw nga wax wax wax waaw yàgg naa di la tooñ naan la coach kat sa pétard a moom xaw ma loo ko ne la. fii na loo xam ne dañ koo war a nangu. mooy ne yàlla dafa am loo xam ne da koo tëral mooy tey loi yi nga xam ne ne ñun xam nañ ko tey jàngal nañu ko. tey bu fekkente ne nit ndeysaan doguma la. waaw nit ñi sax ñu day dégg ñu naan man dama dama xaw ma lan dama weex donc lu may dal daf may dalaat dama njëg jigéen. wala wala damay def lu baax waaye lu bon rek lañ may fay. waaw loolu est-ce que c'est normal loolu bu ah, ñaaree la catu. <laughs> gaa yi gaa yi da ngeen a lii mun naa leen ba sonn. Ah, <laughs> waaw boo may tuddee. man daal damaa nekk jigéen. waaw gis nga daf may dalaat booy def li ngay def chaque jour changé woo ko doo ñu jigéen nga yaakaar yow yaa def les choses de la même voilà da ngay gis bu xëy war a dem marché sax naan bu ma dajee jigéen rek bu ma bu ma soqee rek sama jaay day jar c'est tout à fait normal surtout loolu moo nekk ci sa bopp bi en tant que di tuwaloo ci sa mm-hmm. bopp nga xam ne ne soo demee sa wërsëg rek nga war jot mm-hmm, en tant di tuwaloo ci sa bopp boo dajewul ak ak ak sa jaay du jaar kon kon kon kon am na yenn croyance yoo xam ne ne mm-hmm. dañ ko war a dindi ci suñu bopp yi ba pare di ci ëpp solo mooy gëm yàlla coach man li ma gën a kontaane man sama foi dafa gën a yokk te gis nga doomu aadama bés boo amee la foi yàlla am naa paix intérieure àdduna bii mhm. dara du la fi sonal doo gis mhm. lu la jaaxal doo gis lu la soxonal doo gis lu la tiital mhm. tey sama ménage tey dama daan ñëw coach man dama am lu ma nakari nii la ñuy comporté woo nii la ñuy defee nga ñëw coach dane ma carrément hee ma eh, defal nii waxal nii mais léegi ça va man amatu fa benn problème

waa kay ñu daal suñu bilan boobu daal moo ñu sonal bilan bi nga xam ne daal suñu diggante suñu borom moom lañ ci moom daal moom la ñu suñu diggante ak waaw nit kii lii la ma xoolee wala nit kii la waxee ak man ah, ne yàlla nekkatul la ndax ñun coach a ma da laa <laughs> la maa bañ kenn di yow yow yaa wër sa bopp wër sa bopp ci énéagramme ñaar <laughs> ba ci suba yi mu ne ko bëccëg maa bañ nekkuma loolu mais bizarrement damay toog ma ne yaa ngi dégg mu xam xool xool xool. gis nga ma su li mu wax lii yëpp si man mais lii lii moo am mais man daal xam nga lan naa nangu rek loolu mais teewul loolu yëpp loolu yëpp tamit ñu ñëw tegal la ko. macha allah nga xam ne lii mooy say défaut lii mooy say défaut lii mooy say qualité. macha allah waxaat la ne kat ah say défaut nii ak nii ak nii nga war a mën a def ba mu dee yow tamit da ngay bëgg sa bopp parce que il faut yow soo na mayetu xam nga nit ñi dañ naan bëgg sa bopp mooy di sañse di di xëppoo poudre rek comme man ah ak ah, di di di wane daal apparence mais nit ñi des fois da dégg nit ki naan par exemple diw bëggu la moo tax nit di jàpp nit ki diw mm-hmm. bëgg ko wala tey par exemple ngay jàpp nit ñi dañ la war a bëgg par force <laughs> bu ko defee nga jàpp ni yow bëgg nga sa bopp problème boobu waaw kay loolu mooy problème bi problème bi mooy ne ñun dañoo gëmul suñu bopp déjà li ñuy wax rek mm-hmm. manque de confiance en soi dafa am parce que nekk sa xel bi am ennemi doo doo am tamit ay ennemi mm-hmm. loolu kese parce que yow lan la yow déjà defuloo sa bopp ennemi mais une fois nga ñëw def sa bopp ennemi c'est tout à fait normal fii nii say ennemi waaw ku ku la siñ nag nga yaakaar ne nag moo la. la bëgg te fekk ne nag lu waaw kay lu yàlla xam doy xam nga rek sama sama mbokk yi sama sama gaay yi <laughs> am am na ñoo xam ne moom. bàyyi gaay <laughs> bu yàq suñu bu yàq suñu suñu la <laughs> bàyyi gaay waaw ba pare nag gis na coach ndeysaanam jigéen ñi di leen gën a sonal mhm. ba a dee ndax dépendance a rey amul wal Disney yi ba ca ko ko teg ko fële amul amul rek moo ñu sonal ndeysaan da ngay dugg ci sëy daal jàpp ni daal wal Disney daal moom lu mu film rek yaa moom nga toog nag di ko góolu ci sëy ba <laughs> affaire yi affaire yi waaw vraiment ku moom jaajëfal nañ la bu baax a baax yow moom. yal na la kontaan nañu bu baax a baax. jox am am na solo waaw gis nga baal naa leen kontaan nañu ñu dalal yal na yàlla yi tapoté leen partagé leen ah yegsi leen di jaajëfal Mariétou bu baax a baax di dalal ñi laan moom tey tey tey ñaareel ya ko jatuf ñaareel ya ñoom Fallou Cissé ah ah ñoom mami Sarr ma sorgho ko. salaam wa rahmatulah. maa ngi leen di yéen di leen ziar di jégalu ci retard bi nag. bëggee wuñ ko woon dal ak jàmm ñu la nga dal ak jàmm. sànq ba léegi ngi jéem a dugg mais nag léegi lay. soog a en tout cas macha allah. suñu ko suñu ko dañuy jéem a roy. ma ne ko kontaan nañu wax dëgg yàlla teew fi tey ci suñu suñu ngénte li <laughs> comme niñ koy waxee. gannaaw dañ yóbbu woon ah, dañ dañoo dañoo judduwaat bees donc. ah rek waaw di tëj nag formation 4 mois de formation yu intense allah formation boo xam ni ah ñëpp duggoon nañ ci. Euh, ñii miisoon nañ ko ñii ñi ngi doon soog a dugg bees donc yegg seeg seen ay njàqare yegg seeg seen ay métit métit yegg si aussi ak seen i seen i jaaxle seen ay Euh, blessure ah ñu ñëw nag fekk fi suñu ko boo ni ne macha allah mu ñëw ni ah yegg si ngeen <laughs> mu dalal ñu càmbar ñu bu baax a baax yóbbu ñu scanner ah ku ci nekk moo wax la lan mooy say blessure lan moo waral say comportement lan moo waral sa ay yëg-yëg euh, ba nga dem ba yow nga xam yow yaay kan ah, jàng xam sa bopp nga jàng aussi. xam say mécanisme lu waral lii may def lii lu waral cette situation ma ci mer lu waral lii di ma mhm. poser contact ma donc yooyu yëpp day tax nga xam parce que des fois doomu aadama dina am lu muy yëg mais du xam la moo tax muy yëg loolu ah, des fois muy jéem a xeex ak lenn li te xamul sa ba xam loolu ci moom la bokk pa pas donc boo demee nag ba mhm. xam sa bopp xam say qualité mais aussi nga xam say défaut loolu dalay permettre euh, nga mën a euh, situation bu ñëw nga xam nan nga ciy taxawee donc mu doon loo xam ne lu amaam solo la ñu war cee bàyyi xel xam ne développement personnel yi yëfu jullit la parce que jullit moom ah ci ay jikkoom lañ koy taggee ci ay jikkoom lañ koy nawee te développement personnel lu dara lu jox ñu ay jikko yu rafet ay jikko jullit pour ñu mën a dund ci kaw suuf dund boo xam ne dund bu mhm. mucc ayib dund boo xam ne ñi ak ñi ñuy jëflanteel duñ leen gaañ mhm. mais ñu nit bu ñu gaañee dinañ xam baale buñ ñu gaañee mhm. dina xam ne rek àdduna moo demee noonu donc dafa am solo bu baax a baax ñu jàng ku ci nekk xam yow yaay kan mais xam aussi ñi nga dëkkal xam aussi yàlla suñu boroom moom mooy kan lan moo tax mu andi ñu ci kaw suuf parce que ñëwuñu fi rek di taxawaalu euh, dee mhm. jot ñu dem donc am nañ mission sur terre ku ci nekk xam sa mission donc dafa am solo bu baax a baax ñu góorgóorlu ci encore une fois ñun jigéen ñi parce que formation bi moom macha allah formation bu riche la mais formation bu complète la waaw lépp la ñuy jàng lépp loo xam ne man musuma gis formation coaching bu ñuy jàng autant de choses bàyyiwuñu waañ bi bàyyi ñuy séduction des fois benn formation ci benn thème rek lay tënku mais là mhm. dañuy laal tous les domaines vraiment ñu suñu diine bàyyiwuñu éducation des enfants dañuy jàng lépp lu jëm ci affaire psychologie dañuy dugg sax ci domaine psychiatrique di jàng neurosciences yi di éloquence mhm. dañu koy jàngal ah ñi laan présenté wul <laughs> après ñu àggale macha allah donc wax dëgg <laughs> ñi la xamul waaw mi ngi noonu wax dëgg mhm. yàlla Euh, lépp daal la ñuy jàng donc dañuy kontaan bu baax a baax waaw ma présenté wu effectivement donc man la Djilane mm-hmm. nekk euh, élève ci Fatima Zahra nekkoon ak moom depuis début formation yi donc depuis y a de cela ñu ngi ci quatrième saison donc raté wu ma mm-hmm. benn saison macha allah ba léegi sax ma koy assister ci liggéey bi donc ñu ciy kontaan am fierté teew fi tey euh, bokk ak moom liggéey bi mu ciy def lu mucc ayib macha allah ñu gis aussi changement yi nga xam ni formation bi indi na ko suñu dund parce que yegg si na ci suñu dund mën nañ ni moment yoo xam ne dañ naan yàlla suñu boroom moo ñu bëggoon a jàppale moo tax mu teg ñu ci donc des fois yàlla buy defar ay mbiram day am <laughs> nu koy organiser ba nga xam ne après nag ngay comprendre ne lii lii moo ko waral donc ñuy sant mm-hmm. yàlla bu baax a baax parce que aidé nañu à ñu xam suñu blessure aidé nañu ñu mën a dund dund gu féex aidé ñu mën a nekk de meilleure maman mën a toppatoo suñu njaboot ni mu waree aidé sax si suñu liggéey ñu mën a entreprendre aidé ñu yee lu doon nelaw suñun mais ay ragal-ragal tax ñi ko woon a génne donc aidé nañu daal sur tous les suñu diine aidé pour ñu gën a am connexion ak yàlla suñu borom suñu jaamu yàlla ñu koy def ak dal ñu koy def ak beneen yëg-yëg boo xam ne boo jaarul fi doo ko am waaw ñu koy def ak mhm. amour ñu koy def ak cawarte ak euh, mhm. benn sentiment boo xam ne daal foog nga dund ko pour nga xam ko donc comprendre ñu xam ne rek ñu naan santé dafa am solo ci doomu aadama donc ñun jigéen ñi nañ ci góorgóorlu des fois lu jëm ci affaire bopp dañ koy suul fàtte ko jàpp ne problème amu fa mhm. problème dafa war a génn rek ñu koy gis alors que yaa ngi gis benn jigéen mu sañ sañse defaroo ba mel ni panaan fekk boo ubbi woon xolam xool la fa nekk mi ngi sourire mais sourire boobu sourire de façade la donc boo ba xool rek di nga ne ah kii de lii muy def yëpp masque la rek. Mm-hmm. donc nga gis muy feeñ ci liggéeyukaayam muy feeñ ci relation mariage am muy feeñ ci ni muy toppatowee njabootam muy feeñ ci. Mm-hmm. ay jaamu yàllaam buy julli du mën a sax julli ndax ak dal parce que xel mi toogul parce que mu ngi stressé. Mm-hmm. parce que mi ngi am ay naqar mu ngi xalaat fu mu toll. donc loolu noo ci mënee jaamu yàlla ngay sëgg di julli mais li ngay def yëpp gymnastique la amoo benn connexion parce que sa xel teewul santé mentale na leen jaral lu ne mbokk soxna yi dafa am solo ci doomu mhm. aadama ñu góorgóorlu si bu baax a baax jàng xam ñooy kan jàng wér <laughs> physiquement mais wér aussi mhm. mentalement ba mën a teew ba mën a savourer caf ka ngëm yàlla mën a savourer caf ka am connexion Euh, ba yegg ci liñ naan éveil spirituel nga dem ba lépp lu yàlla borom bind dangay mën a sax am connexion ak loolu parce que mm. euh, dem nga ba raxas sa ay tilim tilim raxas sa ay yu bari yi nga mm-hmm. xam ne mooy tax léegi nag nga mel ni ku judduwaat bees pour mën a nag lépp li nga xam ne tilim tilim yooyu moo nëbboon mën nañ sa gis-gis tilim tilim yooyu yëpp bu dañee rek da am beneen gis-gis ci àdduna da nga am yeneen yëg-yëg aussi yëg yoo xam ne yéene nañ leen ko yéen ñëpp donc bëgg nañu wax dëgg yàlla di leen ñaax parce que des fois lenn li nga xam ko dent ci ko ci yow dañ naan non assistance à personne en danger la <laughs> soxna yu soxla développement personnel mais xamuñu fu ñuy jaar surtout anam bii ñu koy jàngee nag di ko jàngale ci alxuraan ak na di ko jàng teg ko ci diine loolu mhm. c'est rare doomu Sénégal di ko def ci suñu làkk c'est rare encore une fois donc ñëw leen ci formation bi képp koo xam ne am nga looy yëg sa àdduna loo xam ne yow leer na la ni lii wër nga de à droite mais t'arrives pas à trouver une solution mu lay ñaan nga investir ci sa bopp nga investir pour sa àdduna nga investir pour sa àllaaxira nga ñëw suñu formation nga suivre ko wax dëgg yàlla doo ko réccu ñu mhm. bàyyi nag yeneen soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci kii bi ñoom ñu ñëw partager ñu bañ a yàggal parce que dañoo yéex a dugg ñu ñëw mhm. partager seen expérience ak formation bi ñu leen apporté mais en tout cas naan gàcce ngaa laa ma daal kontaan nañ trop te rëcc wuñu wax dëgg yàlla ñun liñ defee formation bi chaque année ñu jàngaat lu bees amaat ci déggin ñu bees chaque année muy beesaat ainsi de suite donc wax dëgg yàlla doo ennuyé wu daal waaw da nga naan sax du doy <laughs> mais nag comme liñ naan rek du neex du doy yàlla loolu macha allah sant yàlla. sant yàlla bu euh, ci bi ñu ngi lay dalal soxna si kaw kooku. naa leen. waaleykum salaam wa rahmatulah. nuyu euh, ma gis ko. Mm-hmm. li ngeen di wax dafa ma parce que mm-hmm. ñëw Europe. Mm-hmm. parce boo ñëwee Europe amoo fi papa amoo fi yaay da benn vide bu nekk si yow. ma commencé c'est vrai que si famille jullit euh, euh, jullit pratiquant la la màggee la mhm. juddoo fa la màggee mhm. mais xam nga bu fekkee da nga am ay parents yoo xam ne ñoo mag mhm. ci ñu ci doom yu njëkk yi ci ñu gën a joxe vigueur que ci doom yu mujj yi c'est vrai dinañ la yóbbu nga jàngi mais jàng boo xamante ne day taxaw si tableau bi ci jël bant bant bi ngeen ci topp rek njàngum géwél njàngum gumba <laughs> waaw géwél géwél sax ngay wax na koy tari bu ñu ni sax ba naa ko fekk mais bu ma ko tiimee nga nga def noonu mais boo ñëwee ba fii nii. Mhm. jënd naa livre euh, coranique de euh, Amazon traduit français pour nga mën ko mhm. comprendre. boo ko liiree aussi te waxuñ la ko ci sa làkk tamit. day des am cohérence. Mhm. ma commencé di seetaan ay vidéo YouTube. ay développement personnel ay affaires yooyu mais xam yooyu noonu. ay affaire dañ ko rax yeneen daal lañ lay wax mais. dañ ko rax la wax ay ay ay affaire daal ay da ngaa war a nekk silencieux. dañ affaire boo xamante ne da <laughs> waaw léegi yooyu da nga koy yu kenn xamul daal yoga ak yu kenn xamul. waaw kay muy noonu mais bi ma war a sentir te amee doom amaat doom ba doom bi commencé di poser yenn question yi. Mm. te xamoo loo koy répondre. Mm-hmm. xam nga day def loo xamante ni day difficile. Mm-hmm. léegi nag mu bëggoon xam formation sincèrement nag bi laay daf maa intéressé trop trop nekkee Sénégal surtout nga nga nekk xale bu jigéen cëppi cëppi dem xew ñëwaat solo ko mm-hmm. ba nekk seul Europe am gisoo sama objectif de vie lan moo tax nit ku nekk bu ko yàlla indee am na benn benn chemin bu mu war a toog lan a toog man lan laa ban éducation laa bëgg a jox samay doom comme que man ak ñoom la nekk ma mm. accusé kenn ne moo yàq sama doom. c'est ça parce que man ak ñoom rek ñoo nekk. c'est ça loolu yëpp da ngay am ay ay question question question question yu bëri yoo xamante ne nii ak li ko doon wax boo tëddee doo nelaw. Mm-hmm. doo doo nelaw parce que man sama jikko sama téléphone sama sama écouteur yi xaw ma kañ ban heure lay wadd ci sama nopp parce que damay déglu déglu ba nelawaale bu ma yeewal wër wër wër ko wala mu dugg suuf laal ma dugg génnee. parce que comme ni nga ko waxee doo def xaw ma lan. balaa ngay sëdd bilan balaa ñuy sëdd. waaw kay <laughs> ma yeewoo wër. nga ci morom. caaxaanuma parce que liñ naan liñ naan yegg nga. parce que question yi commencé bëri sa bopp rek foo jaar di nga ut réponse et que nag kon foofu lañ naan woote bi yegg si <laughs> woote bi jub na <laughs> ko ñu laal ñu la nga répondre ko. Uh-huh, ñu bàyyi la ñu laal nga répondre ko. waaw macha allah waaw soxna si comme ni la ko ku ci waxee rek loolu moom yëg-yëg boo xam ne la da nga ciy sant yàlla a baax parce que la <laughs> euh, bonne place au bon moment et que instant bi xëy nga ko soxla sa dund. donc euh, formation bi comme septembre lay commencé euh, am nga fii ba septembre pour commencé dugg fay sa formation ndànk-ndànk nga xam ne du doon loo xam ne danga koy fay dënk pour muy metti donc couche indi yombal googu mën nga jaar ci groupe kii bi Facebook am bi Facebook bi nga abonné abonné foofu comme ça foofu déjà di nga mën a fay depuis foofu wala sinon dinañ la jox aussi suñu contact comptable bi nga xam ne mooy gérer affaire yooyu comme moom it di a jaar si moom pour pour am compte Telegram boo xam ne c'est gratuit foofu tamit mën nga faa dugg euh, xool déjà di mën a découvrir comment ça passe formation continue yi am donte foofu moom daanaka dañ naan dañ fay faw <laughs> dañ fay aay euh, li a ci biir formation payante bi la ne mais quand même avant goût daal ci formation bi et que bu mën a am mais en tout cas liñ naan prend la bonne décision waaw yenn décision moom nit ki rek moo ko mën a jëlal boppam ñun wax suñu expérience rek lañ mën a def nit ñi aussi ku mu doy rek nga ñëw ci formation bi donc jëlal décision bi nga xam ne mooy décision bi gën pour sa pour sa àdduna pour sa dund pour aussi pour sa njaboot li tax ma li tax ma gën a yokk tax ma woote parce que mm-hmm. vu la façon ni ngeen habillé woo yéen ñëpp forcément di ngeen julli comment waaw ma chérie loolu xam nga julli kenn du ko jàngale si live. Eh, formation cinq d formation 5D boo déggee ñu ne 5D boo ñëwee dinañ la jàngal li nga xam ne tey mooy tawxiid tawxiid mooy naka nga war a gëmee sa borom parce que ñu bëri gëm nañu yàlla fekk na ni ñu gëmee yàlla. yàlla jàngalu leen ko yàlla santu leen ko dañu gëm yàlla juddu fekk seen yaay ni mu gëmee yàlla ak société bi ak seen papa mais réellement yàlla lan la wax gëm yàlla lan la ñu wax tawxiid lan la wax aqida ci yan fondement lay tegu yan base lay tegu kon nit ki boo demee ba xam la mooy sa fondement de base tawxiid li la yàlla sant nga gëm ko nga gëm ko nga daal di koy dindi ndax gëm-gëm pas-pas ci lan la commencé boo balaa ngay def shahada que ni yàlla kenn la amul benn buur bu yaayoo jaamu ku dul moom kon am na ay buur yu ñuy jaamu te duñu yàlla mais nag ki yaayoo jaamu mooy yàlla suñu borom léegi loolu kon lan nga siy déggee mooy yàlla dafa am nu war a gëmee te noonu ñu war a gëmee ñun kenn ku nekk nag boo ba nga demee nag ba wax dëgg yàlla da nga war a xam nan ngay jaamoo yàlla mais munoo ne gëm naa yàlla te yow xamoo kan mooy yàlla ak lan la jàngale ak ci yan base la ñuy gëmee yàlla kon gëm yàlla ku nekk da nga naan gëm nag fii ko fi gëmoo yàlla bu mu mais nan nga mm-hmm. yàlla est-ce que noonu la yàlla waxee tant que gëmoo yàlla ni ko yàlla santaane yow problème bi nga am mooy pratiquer. Mm-hmm. constant assidu bàyyi tere yi mhm. jàpp ci digle yi dund sa religion ak fierté ak oyof ak tamit mhm. benn benn neex-neex boo xamante ni yow booy def sa diine da ngay da nga koy def ak fierté mais pas di ko def parce dañ la li may wax ne dañu tiital ci gëm ci gëmloo ñu yàlla mais war nañu ñu bëgg yàlla parce yàlla boo ko bëggee tey boo bëggee sa jëkkër li koy defal ci jonge da koy def parce daf la neex da ci am bonheur si waaw wala déet te yàlla boo ko bëggee li nga koy defal daf lay neex gis nga sensation boobu tant que amagoo ko mooy pour man yaa ngi jaamu yàlla mécaniquement mais amul vide contenu bi dafa vide amul dara. merci merci tawxiid boobu mooy base bi suñu formation tawxiid bi mooy socle bi. bu ñu paree nag ñu ñëw ak yéen ci fiq fiq mooy lan mooy balaa ngay jaamu yàlla nag foog nga xam nag condition yi. foog nga laab laab bu ñu waxee laab day commencé ci laabu biir mooy tawxiid boobu ñu doon wax laabu biti mooy laab bi nga xam ne aussi mooy say farata ni ngay sangoo ni ngay tiimee ni ngay jàppee ni ngay jullee ba ci julli bu paree askar yi nga war a def jàngale aussi tay ba ci lépp li nga xamante ni am nañ tawhid am nañu lan kitaabul nikah tamit ah, ah. mooy tay ah, say droit en tant qu'une femme musulmane say devoir en tant qu'une femme musulmane sa jëkkër yan droit la am ci yow yan devoir la am ci yow ba ci sa éducation des enfants ci ni ko l'islam bëggee da ko am pour c'est ça donc ceci dit que di ngeen am aussi ci li jëm aussi ci wàllu finance nan gestionner sa finance ci l'islam parce que tey ku nekk yaa ngi dugal di parce que parce que dañuy say doom damay dégg ñu naan say doom boo boo ci ñoom bu keneen jiitoo ci moom rek nga mais naka ngay jiitoo ci say doom yàlla ngay jiital ci ñoom yow doo ci jiitu yàlla ngay jiital ci say doom mais boo ci jiitalee sa bopp yow sa bopp am na fooy toll sa doom dalay teggi teg fële teg boppam. léegi question yooyu comme live bi dafa dafa restreint li ñuy def mooy ñu ne la après nga daal di ñuy càpp ci whatsapp bi nga bàyyi message jarul sa ngay woote parce que duñu la mën a wuyu mais boo bàyyi message di gis message automatique avec beaucoup de liens boo gisee lien telegram nga ni ci tuut di teer suñu groupe gratuit groupe bi nga xam ne communauté euh, bi formation PA bi nag yow ba fa jógee xam nga ndox l'eau de roche ngay nuróol ndax sa xel bi lépp ciy leer comme l'eau de roche dootoo làmbat mais da ngay parce que boo amee doute boo parce que yëpp ay ragal la ay ragal boo nekk sur la défense lan ngay ragal ba tax ngay réactionné après nag euh, na léegi bii du la arrangé dañ lay libéré bu ko defee incha allah <laughs> nga xaar 5D bi waaw xaar ñu la mais aussi gëm naa ne di nga fa am li nga soxla incha allah ñu ngi lay jaajëfal di la wax nga yegg si ak jàmm ak Ah, donc ñu ah en ñu ngi ñu ngi jéem daal lu ñu mën te xam nañ ni euh, boobu ba tey ñu ngi ñu ngi sant yàlla ñu ngi lay jaajëfal kon ma chérie di la wax après ñu dajewaat ci whatsapp bi incha allah. maaleykum salaam wa rahmatulah kooku. ñu ngi nañ la ziar nañ si la jàmm <laughs> xaritu ñilaan bi. ba <laughs> <laughs> fàttali la sa démb tuuti. am fi histoire rek ak jël yaa yaa soxna si génn léegi. Badou Badou ñun ñaar defi ñu naan lañu dugal. non kooku ay question la fi indaale woon man yow la may fàttali sa question yu bëri. yor liste question. gisoo léegi léegi maa ngi am ko may toog man question yi yëpp mënu ma kaa tontu waaye yow defal li ma def rek defal ba nga dugg moo gën. gis nga. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. dinañu sa assist sama assistante bu ñaawul boobu. macha allah jaxate ñu ngi koy nuyu di maa ngi naan maa ngi naan am fay nag dugg naa sànq ba tey maa ngi oote. <laughs> waaw waaw <laughs> uh-huh. allah. Ah, macha allah ñun de ñun bi. ren lañ ci dugg te yàlla def na ne sama genre gi doon wax naan ne wax ma mënuñ ci dara mënu ma wax mënu ma wax yàlla def na tey moom dinaa fexe ba dugg ba wax ba témoigné ndaxte formation bi am na lu bëri lu mu dindi ci man am na lu bëri aussi lu mu ma apporté yàlla bi may de comme ni ko soxna comme ni nga ko waxee soxna soosu rek ay question yu bëri ñoo nekkoon sama bopp ma jaxasoo lool ma nekkoon ay guddi yoo xam ne amaana guddi day gudd gudd gudd lool si ma du ma nelaw. yàlla bi ma yàlla dajalewee ak yow. sant yàlla te rëccu ma benn yoon ni ma duggee ci formation bi wax dëgg yàlla. formation bi de man mën naa wax ne am naa ci lu sama jot ndax li ma si dugaloon man la ma doon xaar kese kese kese lu loolu kese laa fa fekk. dama fa fekk lu mu kawe sama jot. sant yàlla volet bu ne bu ne waxuma la ci sama diggante sama presque. jigéen bu nekk buy dugg si si formation presque di ci gën a bëri volet ménage bi rek lay doon. Mhm. vie conjugale problème vie conjugale ngay am ne nga ne mhm. xaaral ma dugg fa. xool ba xam ndax solution mais yàlla def na ne boo duggee di nga fa am éducation éducation des enfants nga xam nga yaree sa ay njaboot nga xam ne que ne ci li nga nekkoon ci li nga nekkoon nekkati du yar. Mhm. yow sa ay doom. donc buñ jugee foofu ñu ñëw ci gestion bi nga xam nooy gérer sa xaalis ndax di liggéey aussi te xamuloo nan ngay yoree sa xaalis hmm. loolu tamit nekkoon <laughs> problème bu rëy hmm. surtout ci sama côté man moom franchement Fatima tu m'as <laughs> beaucoup beaucoup sauvé man dama doon sànni sama xaalis rek par la fenêtre sant yàlla doo xam xam nga li ñu naan ñàkk xam nag li mu waral bari na aussi hmm. ndax pour yow loolu mooy amaana loolu mooy sëy wala amaana noonu ngay euh, c' est comme si tu achètes l' amour des gens tamit. Mm-hmm. pour yow pour ñu bëgg la il faut nga investir sa xaalis wala nga investir sa xaalis accepté na léegi nii. Mm-hmm. mais naa xool ba xam ci ñoom la ah def na. xaaral ah, ma coupé micro gan gi <laughs> coupé naa micro gan gi <laughs> gan gi déglu ñu tuuti <laughs> après nga ñëw. Mm-hmm. voilà. donc nga nga dem ba nga xam ne que ne yow li ngay def. Mhm. yow tu na pas besoin d'acheter l'amour de ces gens mhm. pour que ñoom ñu bëgg la yow jéem a la bëgg sa bopp. surtout bëggal sa bopp xam sa bopp fonk sa bopp. Mhm. c'est facile nag boo koy wax nii nii ni dañ naan noo ko nooy bëggee. dafa yomb ils vont te poser la question nan ngay bëggee sa bopp nan ngay xamee sa bopp. surtout nan tamit ngay fonkee sa bopp et tout ça. voilà mais yow da ngay boo defee formation bi rek di nga xam ne ndeke c'est tellement facile c'est tellement facile de nga bëgg sa non c'est tellement man dama man dama xool que ne bi ma defee formation xool xool léegi damay dox di bon de damay nekk di di wax. da ngay ayof toll. ay dimension la. damay léegi damay kontaan nekk ci ba pare affirmé wu. commencé nag léegi di xam sama bopp. di mm-hmm. xam li ma bëgg. di di nag di mën a wax nag léegi. mais mm-hmm. avant dama doon wax du ma mën a wax. lu tax nga mën a wax nag ay Aïcha lu tax nga mën a wax. lu tax nga mën a wax ban cours moo tax nga mën a wax. parce que dama commencé. confiance ci sama bopp dama ni ban cours moo la permettre aussi. allo. <laughs> allo waaw ma ni ban cours moo la permettre nga mën a wax. waaw ah, daaw ñu la nii de Aïcha macha allah. ma la déggee man day wax dëgg yàlla côté boobu moom permettre na ma ma ma a sonal mooy dépendance ma amee woon. Mhm. ma sonn dépendance moom. jël bi yëpp ci nit. yokk ko ci doomu aadama jàpp ne kooku moom ma war a mën a jàppale su dul nit ñi mënumaa dem su dul nit ñi mënumaa dem mm-hmm. mais bi ma demee ba xam ne que ne lii nii yëpp nekkate le problème c'était moi mm-hmm. benn instant c'était moi mais beneen instant si nga jéem a fënanti xool li ñu lay woon mm-hmm. nga gis ne que ne yow lii ñu lay won nii lii du du loolu mooy réalité bi en fait dañu la bëgg a dañu la bëgg a manipuler dañu la bëgg a terroriser teg la ci foo xam ne ni yow demeewuloo côté boobu wala waxeewuloo côté boobu donc boo demee ba situation bi ni mu mel nga culbuté situation ko